money transfer and get the chance to win one of five rams or one of five bags of 50 kilogram rice, or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top up. Enjoy our safe and instant money transfer service with the lowest fee, highest rate, and largest payout network in the Gambia. Hurry now and be one of the many winners in this special Tobaski promo from Supersonics Money Transfer.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 ene kibaruji welɗi ɗin woni ndu heeɓi haray pikiru ɓaynafo ñetti o vaccin jonko galle yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewndo coronavirus no woodi o ñawono mbokka e ñuy nuyu mbokka e ñuy déglu di ñu seetaan ci koñi àdduna penku xaat bu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen a nuyu di leen béggee bu baax a baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet another edition of the Ñoxo Baay show ah, di leen béggee rek ci li ngeen ñu dee toppa waxtu bu nekk nag am suma laa show bi ma leen indi rek maa ngi doon waxtaan ak di Papa Tunkara the councillor for Farafenni ward nekk foofu sa North Bank division nga xam ne North region nga xam ne waxtaan na ak moom nag ki lu bari lu yóbbu réew mi kanam ak ñoom councillor yi nekk foofu naka lañ ko doxalee ñoo ko bàyyi nag du yomb ba tey ma dal am mbégte ak kontaante dalalaat ab kàngam ak ndaanaan koo xam ne kat defal na Gambia lu xaw a takku in the person of Dr Mamadou Lamin Sidat Diop Mr Diop nuyu naa la Mr Diop Euh, nuyu am monsieur Diouf ndax interview bi ci anglais la ndax ci wolof ci olof la bi ma waxoon naa la si olof la ñoxo baay show la pour suñ mbokki euh, yi ñuy topp rek di ñu déglu di ñu seetaan ñu ah. dégg olof si olof la ñoo xuus ok no problème no problème um, waaw jërëjëf ñu dem ñu dem wolof ah hmm. jërëjëf kon ñu am um, dugga ci waxtaan bi rek docteur Diop um, suñ ne docteur Sidat hmm. Diop nekkut ku ndaw ci biir Gambia am um, wealth of knowledge am a river of knowledge koo xam ne am liggéeyal nga réew mi ci ay maxaama yu bari li ma laa rek ndax taarix pour xale yi xam uh, docteur Sidat Diop uh, lu ci bari si diplomatie lañ la gën a xamee ndax yow sa life yeb ci liggéeyal Gambia ci diplomatic field bi nga ko def ah, jërëjëf sa Diouf déedéet du ci diplomatie bi ma dellu see jógee university ah, maa ngi nekkoon ah, assistant commissioner mooy suma first posting assistant commissioner Brikama ci la fofu lañ ma jëlé euh yobuma immediately to the prime minister's office as assistant secretary so uh, period mu ngi coincide with time bi nga xam ñu ngi doon laccé pour uh, become a republic uh, contribute na ci di speech bi prime minister bi def pour request republic bi And uh, three or four months after Bimadekeke Prime Minister's office uh, at the Quadrangle, cira ci rek lañ decide ne comme maa ngi traîner France am uh, not tam experienced in uh, uh, political science pour Madame, univers Madame Madame Dakar at that time lañ decide ne embassy bi nekk Dakar du nekk only pour Sénégal mais ñu expand ko pour mu cover cover Mauritanie Sierra Leone Liberia ak Guinée Conakry euh, foofu laa nekkoon as euh, first secretary ma Pa Bio Jaane then uh, after that euh, ñu uh, decide pour bàyyi mama dem defi ji suma masters And uh, bi ma jeexalee suma masters rek ñu decide pour post ma to the embassy in London bima ma ci embassy bi London uh, change of uh, ministerial post ham ab ham am Banjul ci lañ appoint Sirif Diba then from London ci la dem ubbi ji Brussels embassy bi uh, install ambassador bi office am ak everything may ron ñaari offices yi London ak Brussels be bi Cherif Diba toogee ñu appointal ko his own uh, staff then from that uh, ma si Gambia ci dem uh, Sénégal because comme que déggoon nga ko peut-être dama a very close relationship with President Senghor daf ma gis bi ma nekkee form five in the Gambia ma làkk ko français mu invite ma ne chief of protocol bi nañ ma invite for the summer pour ma dem spendi ji ci li ñoo ooyee cours de langue e civilisation française bi nga xam ne University of Sorbonne moo ko doon organise so after that ci laa dellu waat soog a jeexal suma fifth form jàngeewuma University of Dakar dem ma jeexalee suma six form ci la ma French government jox scholarship through the Gambia government of course pour ma dem directly to France euh, ma dem University of Caen in Normandie Grenoble follow tam ay courses at the Sorbonne euh, bi ma jógee ci loolu ci la euh, dem to the cycle of going to Brikama so dama jaxase ñaari ñaari side yooyu. the average Gambian um, ndaw yi ñu ci bari duñ dee jël yu fi very important very serious du ñoo dem school man suma boppa ba tey jii dama ko regret uh, dem na school bi ma nekkee school French was one of the subjects that I never took serious it was an elective wat musuma ko jël loo xam ne dama ko farataaloon um, lan moo tax yow nga farataaloon français bi ñoo gis nga time boobu lañ commencé am independence xamoon nga amoon na négociations yu doon xew pour jéem a def Sénégal ak Gambie vraiment ñu forcé ñu pour ñu unite mm-hmm. euh, ñoomin Jawara ñu xeex loolu euh, confédération du mun a existe àgganguñ ci loolu àgganguñ ci loolu so uh, ñu ne Gambia du mun a exist so in that period ci la government of Gambia ak senegal decide wala affaire confédération bi ne daal war nañu encourage citizens of the two countries pour ñu jàng colonial language of each and other Patenga there was a French school file bu nekkoon uh, boori Liman Street and then afterwards Gambia government tam commencé am scholarships you bari so man maa the first generation of Gambians You xam ne dem nañ def study France and first symbolic on torop because I was head boy of Gambia High School <laughs> te ñëpp a ngi foogoon ne dama doon dem Angleterre and perhaps to Cambridge Me ma decide ne deny dem euh, to France for study French ci jamono jiñ nekk ni ñun ñu nekk bitim rew ku ñew bala nga xam lu xew def nga fi man sama ko ma ngi jégen ci ñaar fukki at fukki at ñaar fukki at ñu bari ci yeen seen jamono da ngeen daan ñëw jànga waat naka la jafe woon wala metti wala yombé woon pour yow nga mëna delu waat Gambia amen bi nga be pare no foog période bobu really government daf doon encourage nit ñi ñu te pour waxal suma bopp daal suma xelat bi ma jexali suma studies yi pour stay there opportunities nak dinañ dé am parce que euh, ma jox la exemple ko koo xam na ci suma university euh, ku tudda Sidia jata je fogna MMP la légui mom bim jangé mom dañ after me, ci Grenoble mom bim jangé Eh, mungkin specialize in linguistics te mumunon ko bu baakha baax ñu appoint ko Fofu as an assistant lecturer in linguistics so xam nga su fekk doone eh, amu doon will power bi mom tam du delu ci wat because they gave him a post in the university so di nga am opportunity bi mais man eh, suma relationship on ak sa Dawda when he was prime minister and also expectation si suma family bi moom mooy ne ma dellu si waat daal pour contribute ci liggéey bi ci réew mi te foog naa léegi soo gisee ñu bari ñuy statam dafa different because ñun suñ jamono soo jeexalee rek xam nga ne soo ñëwee opportunities am na in various fields agriculture administration ak yooyu te tam government daf la daan encourage pour nga dellu si waat and to some extent moral bound baa ngi ci woon comme que dañ la jox scholarship pour nga dem jànge ji pour réew mi it was morally wrong pour nga decide ne da nga stay Europe te ñëwloo ci sa réew government nag forcé wut kenn mais foog naa daal that period ñëpp ñi jógee abroad dañ leen easily absorb into the administration and into various branches of government. for the sake ndaw yi ñoo seetaan ñoo xam ne am xamuñ lim fi jot nettali si sa taarix ak sa jaar-jaar dafa mel ni yow depuis balaa Gambia di moom boppam euh, wala biñ moomee suñ boppa diggante 1965 I mean 1970 rather si lañ nekk république so yow pré république Gambia si nga commencé di liggéey ak ñoom Sir Dawda is that right. Bala independence la ndax after independence. yeah No, no. pre pre republic Mangi ngi dellu si Gambia in 1969 uh, bi in 69 uh, ci lañ ma appoint assistant uh, assistant commissioner Brikama ma liggéey Mel Rob Mel Oba very very brilliant commissioner moom ma njëkka train man maa he became later on the governor of the central bank so ma three months fofu, ak uh, Mel Oba ci ma transfer to the prime minister's office as an assistant secretary uh, Maneka nekk foofu Mom tam a few months rek You decide that finally uh, taking into account maa ngi jàng français te dañ bugg suñ diplomatie bu mu em rek ci Angleterre ak Sénégal ne ñu expand ko to Mauritania to to fekk président Ould moo fa nekkoon then also to Liberia and uh, Sierra Leone uh, so ma ma ma ma ma ma dem ci appointment yooyu ma nekk as I told you the 70 ci dem quickly back to suma university Grenoble uh, pour def suma masters bi mu jeex then ma uh, new appointment ma nekkee uh, university sax la yëg suma jógee fofu rek dama wara dem straight London to take over from Sara Jangha and Kile ak Usman Sala deputy governor si gàtt naka am assistant commissioner si gàttal si jamono jiñ toll nii mooy maxaama deputy governor mm. comme li nga xam ne moom la Sirifo Sonko nekk foofu ca biir Birkama mm. yow yaay woon assistant ku toppa mm. ci governor bi because time boobu commissioner lañ amoon not governor right waaw waaw oh, ok so su ma la déggee tamit mm-hmm, go mane utena torop ak ni mo ni mo meleni ta du du du faulty government bi daf dafa évoluer position bi ni melon in that period ñun automatically suñ ñewon dañ ñoo retrain euh, because automatically assistant commissioner nga but at the same time magistrate nga ñun ñaa oh. daan def ay court yi and very oh, quickly so commission bi dafa dafa dafa disaaj ñun tam dañoo dañoo dañoo condamné foog naa man loolu sax euh, dimbale na ma bu baax because I was not very very much for imprisoning people so am na kees yu bari yoo xam ne dama onda naka la tuddaati onda not really onda but I was very lenient but that was not the reason why Saa Dawda ci boppam moo bëggoon ma ñëw ci prime minister's office But in those days, Assistant Commissioner was a magistrate at the same time. Oh, okay. Interesting. Mm -hmm. Mm -hmm. Interesting. So Sumala Dege tamit Gambia bi moom 1965 then 1970 ñu republic um am and that's important for ñu xam ne suñ ñaari dëkk yoo ne amoon nañ fa embassy wala even name fa embassy my Sénégal at Angleterre. At Angleterre wow. so sénégalais embassy bi léegi léegi Gambia am na embassy si dëkk yu bari Guinée mi nga wax noonu Mali dëkk yu bari Gambia am na fa embassy léegi so ci jamono jooju da ngeen jëloon headquarters bi nekk Sénégal bon yeneen dëkk yëpp ah, sénégalais Gambian embassy bi nekk Sénégal di ko am pour géneen cover yeneen réew yi except Sierra Leone Sierra Leone moom euh, maa doon first secretary in Dakar but mm-hmm. the second secretary amoon na Sierra Leone and embassy mu ngi fa woon but with only the first secretary the ambassador was in Dakar def nga am uh, Angleterre am nga dem ibbi Belgium after loolu of course jamono di dox am uh, nga saaf si uh, Jawara's government you rose through the ranks by 1994 lan mooy woon position yi mm-hmm. Sidat Diop ci nguuri go Jawara no 1994 1994 fooguma woon maa ngi woon ci uh, gouvernement yi Jawara xaaral ma clarify la foofu 1972 ci la jógee Gambia High Commission London ma jógee Gambia High Commission London ma bàyyi government bi then President Senghor invite ma to Senegal then mu appoint ma at the Faculty of Arts as a professor so sama di university bi moo ma appoint because dama def interview with the dean of the Faculty of Arts and the rector of the university aktam um, di department of english and comparative literature comparative literature prepare one ko bu baax it was uh, modern letters uh, lettre moderne and uh, so ma ñëw ma commencé di jàngale fofu. ma jàngale fa uh, eight years then harite Senghor mu ganyu, bim mu feebaree sax lañ commencé di wax ne ndax duma dem America pour reassure his lectures ñu ko doon ooye Léon Damas moom moo Aimé ak Senghor ñoom ñoo doon dox ci bi nekkee university ci lu tudda négritude so loolu moom euh, dafa mel ni ne it was a very big promotion parce que góor gi historically position bin amoon Uh, Mom deal na with Harlem Renaissance bi ak um, most of the black American writers and course him don doon jàngal yi ma joxe afterwards and I do not want to flatter myself it was at the same level was uh, Harlem Renaissance and impact bim amon on the African writers So my teach, uh, Madam, uh, after eight years of the University of Dhaka, Madam Washington, D.C., Madam to African Studies and Research Program, and my faculty, suma benn compatriot, uh, Dr. Suleiman Nyang, mangi fane kon mark moom two years man mangi teach uh, Harlem Renaissance bi ak impact bi am the African writers here and the early African writers, especially the Francophones, uh, the Negritude movement at Lim Signify. So foofu laa nekkoon uh, ba pare mu am benn mission boo xam Amadou Mokhtar Mbow daf ko def uh, uh, Washington but before that daf ma at the first biñ demoon Negritude movement bi uh, Black African Festival bi in Nigeria so mu he was very much impressed by the debates yu def during the whole session so mu as a professor of literature te ñu ngi collection bu UNESCO Butuda, tudda uh, UNESCO collection of representative works of world literature bu amoon ay jàngoor yu rare ñu ko ron uh, so ñooñu Professor university lañ and the programme dañoo jël a translation of a work from Japanese you give it to a Japanese professor who knows ku xam anglais nearly dal, all the major works of literature ci àdduna bi muy Asia Africa Latin America and even among the European countries nga jéem a def pour translate len into English French Spanish or the working languages of the United Nations so maneke, chilulu, ci loolu eh, fa for about 19 years then boo dem na eh, Frederico Mayor ñëw ma continue di ligayak ak Mayor then eh, Mayor at that period ñu am transition file Gambie mu coup d'état bi xew eh, den ma dégg eh, am nañ problème yu bari ci suñ school si den Satan Jaw moom moo doon eh, minister of education Badara Diouf present minister of higher education moom moo doon permanent secretary bi so ñu bindama Satan bindama ne ma ah président euh, yaaya loolu dama ko waxoon ne ah naka lay nekkee UNESCO suma dëkk léegi dégg naa there's a lot of problems in education mu ne ma ah su fekkee loolu la duñ ko def normally because ci biir secrétariat bi UNESCO ñu bare ngi doon wax ne li waru da xew naka la ma mayor di jëlee di ma yónni as a special envoy to my own country di Gambia mais in brief pour wax la suma first mission bi bi ma ñëwee ñu euh, ngi jox euh, Ministry of Education one hundred thousand euros pour dimbale educational sector bi suma second mission bi euh, xaalis bi ñëw after bi ma bi ma delluwee France bi loolu xewee ah président Jammeh ne mm, daal ñu ngi very busy te moom dafa gis ne mënuñoo jox scholarship nit ñu bari te tam léegi daal foog na ne is high time ñu ngi amee GTTI ñu ngi amee training college but definitely mun nañoo assemble or cooperate with universities ci Canada Angleterre America pour ñu am suñ own university so dinañ mun a gën a am more Gambian students ñuy jàngé locally ci réew mi so ma nekk the chairman of the commission in charge of the University of the Gambia Saten Jaw a ngi fa woon Badara Diouf moo doon secret commission bi ñu amoon the director of GTTI and about seven other Gambians ñu bokkoon ci commission bi ñu def ay missions abroad America Angleterre ak yooyu consult great universities jéem a seet naka la ñoo mun a continuer course yi nga xamoon ne St Mary's University uh, Canada moo ko fi doon def uh, pour que ñu ñu move from that am suñ own university uh, luckily maa ngi ma present suma report bi to President Jammeh and it's from there ñu move on pour def univers create the Gambian University in three phases alhamdulilah create nañ ko mu nge dox mais intention biñ am te xam naa dina ñëw moom mooy pour def ko mu nekk university bu rëy West Africa foo xam ne ñëpp from Nigeria Ghana at present d'ailleurs ñu ngee ñëw mais not to that great extent te tam def liaison bu dëgër diggante University of the Gambia Saint-Louis ak ak ak Dakar pour que ñu mun a am exchange yu solide diggante West African universities yi te bente man maa ngi believe ne Gambia am na mun naa am vocation boobu et mun naa nekkatam a big moto pour dimbale consolidation et relation yi nekk ci ECOWAS ci li euh, lu mel ni jàng ak pour mun a créer nit ñi ñu dem in the various aspects of industry ci also agriculture study method yi nga xam ne mun nañoo def exchange to develop suñ transportation system in the ECOWAS region I think we need more trains in the region train railway system dafa dee dimbale bu baax a baax the quick development of an area transportation of goods and also the exchange between the different populations so loolu foog naa ne university bi am na am solo docteur Diop wax nga lu am solo ci affaire university bi dafa baax ñu xam taarix ndax University of the Gambia set up nañ ko ndaw yi fa jàngee tey wala ñi fa jàngee bari nañ but how it was set up and the people who were behind it ñi nga xam ne ñoo fa jaar wala ñoo ko taxaw woon ba mu am um, man su ma jëmmi bopp maa ngi ko doog a dégg tey uh, ne yow la I mean obviously xam nañ ne ministry of education moo ko facilitate waaye li nga fi wax lu am solo la comme twenty something years later um, ci one minute rek naka nga gisee am um, University of the Gambia fi ñu toll si jamono ji bi nga xamee ne yéen set up ngeen ko over twenty years ago. ok comme comme ni ma la ko rek xam nga eh, intention and timing nekk na problème mm-hmm. liñ éenee def university bi te xam naa sax Badara Juuf léegi kii géej naa gis mais bi intention bim mu am moom tam because he was one of the powerful motors behind it moo Satang Jaw eh, university bi niñ ko bëggoon create the funding biñ ko bëggona amal té xam nga African countries yi niñ mel more eh, mo perhaps delay some of the aspects ya karon, but man dama bëgg very optimistic ci loolu Mr Diouf xam Gambia Gambian University Gambia's University dina dem kanam am lu bari luy play pour Gambia's University mais su fekkee mun nañu organize suñ bopp ñu mun a am incentives pour ñu recruit already mun naa la wax ne foog ñu am professors yu jógee ci yeneen réew but Mr Diouf you cannot believe amount of Gambians yoo xam ne de ñu ngi ci industry ñu ngi ci various aspects of human learning léegi ñu ngi jàngale abroad in different universities in Europe America Asia even in Asia we have Gambian professors there so I hope Sinmune create intensively, and also give them the main means pour ñu mun a liggéey te seen scientific laboratories yi ñu am a very high standing ba nga xam ne they are not going to leave very powerful laboratories pour ñëw def fii research te amuñ facilities yi I'm quite certain that the university will have a great name in the years to come. jërëjëf docteur Diop loolu am na solo bu baax bi nga nekkee UNESCO ñu yónnee la Gambia as a special envoy nga ñëw a couple of times so at what stage or lan mooy sa first position bi nga jël am naa mention nga commission bi that set up the university bi taxawal university bi mooy jàngu bu gën a mag ci réew mi but lan mooy sa first official position ndax boobu mooy sa first official position pour liggéey ko nguuri Yaya Jammeh wala boog lan mooy sa position bu njëkk boo xam ne liggéey nga ko ak nguuri Yaya immediately we uh, bima presenté suma uh, commission bi ma bima présenté uh, the recommendation to Yaya Jammeh mm -hmm. mayor dafa gisoon ne maa fly all the time from Paris to Banjul for the meeting of the commission and so on mu ma uh, in fact moom waxuma ko di eh, director general of culture moo ma ko wax mu ne ma fi nekk nii ñu ngi gis ne yaa ngi def missions yu bari sa dëkka mais dañ bugg a director of culture <laughs> in Dakar because eh, ki fa nekk nii dafa wara a retire so instead of ñuy appoint keneen xamuñ ndax because maa ngi woon in a very central position maa ngi nekkoon as well as DEFNA representative works me, I became at some point time bi ma daan ñëw Gambie pour uh, naka la pour pour uh, university commission bi I was the head of the the documentation center of culture and communication of UNESCO all over so all the communication documentation and also the cultural documentation, cultural policies of various African states in your control on yep, key living, key, key uh, uh, cultural center Be. Ci time boobu lama la uh, président Yaya Jammeh wax ne man li ñooy bugga moom mooy ne nga accepté post of Minister of Foreign Affairs then maa ngi at suma office in Dakar ma wax ko président Federico Mayor the Director General, mu ne ma ah sa dika moo la laajte Euh, comme que yëpp a ngi confidentiel nga ne ba ma approuve ko ah gisuma la na tax ma war laa tere nga dem dimbali sa réew li ma laa defal moom mooy ne dama jox leave without pay so anytime boo bugg a dellu si nga dellu si so bi ma ñëwee for two years may liggéey to uh, with President Jammeh and by the time bi ma ñëwee relationship with Senegal wasn't very, very warm. and also because of the influence of Sénégal among na Yubari, they were a bit uh, lukewarm affaire yi Gambia Morocco was one of them Angleterre Ben, America tam so uh, ma embark on a mission to first of all um, uh, France laa then Angleterre Mr Wade moom secretary general from Angleterre ñëw uh, United States and all of them I delivered a letter from President Jammeh want a goodwill Gambia to cooperate with these countries for the development of the country. It's a very small state and we will maintain it in stability and try to see how best we could cooperate within the uh, framework of the international uh, community. Yalla def uh, uh, bima def emissions yoyu a very special situation happened in United Nations. Ah, African states yep ñu ne dal gis nañ Gambia mu ngee def bu baax pour pull the African states together so ñoom daal foog nañ ne léegi bi Tony Gambia la to be the uh, head of the Security Council of the United Nations ah ñëpp ne déedéet Gambia dafa tuuti torop amut staff bi because most of the delegations yi nekk UN send staff ya they have hundred staff members ñeneen ñi fifty forty thirty Gambia Una, uh, rek about three top officials plus the minister uh, and I should mention them Abdoulaye Sala monjeka njëkk a uh, eh, ligay bi then Bless Janu, and at that time ci preside over the Security Council then lock amon problem problème bu rëy in the UN because uh, dégg nga uh, lokka bi bombardement bi plane yi uh, uh, li ñu waxee ne plane so you know, fuck you try Libyan sea either in England or America and if you know, kur for years can amut ci condition different sanction You nekk Kadhafi you do doxut so you know, with the idea uh, ne léegi dinañ jéem convince all the European countries and the Africans pour ñu baak ñu pour ne nañ a third country to judge the Libyans so biñ defee loolu ñu have a Security Council meeting I presided over the Security Council for nearly a whole <laughs> day from the morning till in the evening because nearly about uh, sixty countries ñoo bëgg a jël di floor pour wax ci yëpp uh, the American uh, Secretary of State was there, and uh, New Mundal, at the final analysis, you convinced the major powers to accept, you accept third country. loolu nekkal ndam pour pour Gambia te bi mu European countries yi America ñëpp accept ne dinañ def trial be outside the def then the second thing that I had, Mabukwaronko presiding the Security Council, Momoy, the return of Kofi Annan from Iraq. Bimdelu said that was a very, very serious meeting because xeex daal mu ngi woon ci biir eh, Kofi Annan joxe report am bi then I had to give the floor to all the members who wanted to intervene Bobutam i am a very solid union among the Africans façon union yooyu union you you, mun a continue in the Security Council because Bentei really position be Africa occupy in the Security Council and in these various organizations it's not very enviable because how long nga serve position doctor Jobe how long how long uh, nga nga nga how long did you continue in that position in the council security council was chairmanship yes chairmanship of the security council how long did you chairmanship chairmanship chairmanship was for two years. But uh -huh. if I was in there, <laughs> it was presided. I did. I, I came on two occasions there. the very major crisis damaa dem man ci suma boppam a preside but in the meantime Blaise Diagne moo doon preside our oh, uh, ambassador Blaise Diagne Abdoulaye Sala it started with Abdoulaye Sala moo mm. doon preside major cases yooyu ci laa ñëw preside twice only but all the rest uh, ambassador yi nekk uh, America ñu nekk America ñu nekk waaw New York ñoom ñoo doon preside council bi and it's very interesting time bi. léegi ñu ñu continuer ñu continuer waaw ñu continuer as. dañu um, ma ne ñu continuer rek as. Gambia major jox la benn point which is very important. Hmm. dégguma li nga wax. Hmm. Well, you continue, but two years a year then somebody else took over the presidency of the Security Council. Mm -hmm. yeah? Mm. Okay, so you continue um, uh, as the as as as uh, foreign minister of Gambia you bugarenga a rek Um, diplomacy lu ma ne as Gambian foreign minister ki hamne mo ame. moo ah, amee. Um, ah. technician see what is going on please please fix the issue to make sure ne um docteur Diop mu Madega, maa dégga yaa na Yang ma maa dégg wala dégguloo ma mbokk ñuy deglu di ñu seetaan fu ci way nek ci ñenté ko ñi aduna penku xaar ko ngop wala du ñu ngi lay a bu baaxa baaxa baax ñu xobaay show la nek di am nak ak docteur Mor Lamin Sidat Jobe yaa ngi maa dégg docteur job na ma léegi yaa ngi wala ma waaw ma ngi laa dégg bu baax dañ bugg nga wax ñu dama bugg nga wax lan moy liggéey lan moy liggéey foreign minister lan moy liggéey foreign minister liggéey foreign liggéey foreign minister of course moom mooy euh, pour euh, euh, maintain relationship it réewam ak yeneen réew yi ak tam represent réewam ci all the international conferences and so on moom mooy daal liaison yi président bi ak yeneen réew yi te yu bari ci foreign ministre bi lay jaar mais am na benn point boo xam ne waruma ko fàtte période bi nga xamee ne ñu ngi euh, euh, preside over the Security Council then appoint on a legal advisor who was in New York te moom moo ñu doon advise on legal matters concerning the UN system and euh, Koku momoy mooy Essa Fall ki nga xamoon ne moom TRRC he was then the legal advisor of the Gambian mission in New York and he used to go with us to all the meetings of the Security Council Taman sumafa su momodan fa gunge uh, bless Diagne for dem ci meeting the United Nations also they take care of all the legal matters yi nga xam ne am nañ very interesting um, uh, Dr Sidat Diop nekk Gambian um, Gambia's Minister of um, uh, Foreign Affairs. liggéey onda Yaya Jammeh ci jamono bi nga nekkee ministre ñaata uh, embassy la Gambia amoon. oh foog naa ta bi bi ma nekkee ministre maa ngi fekk ñu ngi ñu ngi commencé improve on nañ more than ñu ngi amoon Angleterre Bruxelles ñu ngi amoon about uh, uh, five embassies in Africa Uh, five embassies and I think there were roughly about 10 or 12 embassies. Huh? Mm -hmm. Okay. Then we opened New UBI Nigeria, New UBI Nigeria, and then then from certain bases, then dan cover the Kayubari, So uh, so da nga comme ni don't def Sénégal ngay wax ni comme ni ngeen doon def Sénégal ngay wax ni ngeen nga nekk am embassy mu nekka Sénégal nga kooba Mauritanie ak yeneen dëkk loolu nga wax ni par exemple nga nekk Brussels ba pare di kooba Germany Italie ak yeneen dëkk yi nekk ci Europe exactly exactly noonu la xam nga then London was even covering Sweden and some of the Nordic countries mm-hmm. Mm-hmm. Saudi Arabia tamit di kooba yenn Saudi Arabia Saudi, Middle Saudi East. Arabia, Egypt, Sudan, Sudan, and so on. By then what we suñ Qatar Kuwait which we did later on but did it later on on the Jammeh by physically opening embassies there ah like uh, Qatar ubbi nañ embassy Kuwait ubbi wuñ embassy but it was covered by from Saudi Arabia not Sudan, Egypt, and so on. Okay, interesting. Um, ci gàttal rek ñu bugg nga wax ñu ndax Gambien su bari ñu ñoo toppa di ñu seetaan rawatina ñu ci diaspora bi liggéey embassy suñ nekkee embassy lan mooy liggéey embassy bi lan la ñoo defar mi ak lan moo tax réew war a mun a ibbi embassy si dëkka first what should be a good reason why a country should open an embassy in another country lan moo tax réew war a ibbi embassy si beneen dëkka non embassy uh, soko ko ubbee lu bari la laa jox ambassador bi is the direct representative of the president of his country su dara amna access to the head of state but just to give you an example a practical example the Gambian ambassador in the United States is the direct representative of the president of the Gambia he has access to the White House, access to the Foreign Office, so that if there is a misunderstanding or if there is a necessity to do something, moom mooy riumi. Tetam réew mi di guarantor of Gambian citizens in that country and as you know embassy be fi extraterritorial la c'est-à-dire su Gambian ci America. mu daw cibir ci bir embassy of the Gambia wala sax mu nek congolais buñ daxa mu daw dugga ci embassy of the Gambia Ben police du fa mën a pour ko embassy ground bi dafa melni ne mu ngi ci bir Banjul ci bopam and you have immunity buko buko buko buko buko cover ah, not only that sa wa rew yitam mun nga continuer di len di dimbalé pour the registrations of births and uh, seen social uh, affaire seen papers yi pour ñu régulariser ko su fekkee war nga leen a intervenir take also pour dimbale leen pour seen students si ñu mun a register pour dem university and so on su fekkee ne government bi moo leen jox scholarship ñuy fay scholarship yi through the embassy wala embassy bi am seen bank accounts nga xam ne automatically weer bu nekk ñu fay leen. medical service system su fekkee dan there is a crisis ñom ñu embassy bi moko tokal moy jël care of all the social aspects of Gambian citizens abroad melni ne mom mo togal gouvernement bi fofu te Gambian si ci mom lañ wara jaar pour mëna topato yu bari for example so ngey renew sa passport. ten nga koy dugal ci envelope di ko send wala di wax sa mbokk fi pour mu euh, sendal la ko toppatool la ko so. ko indee ci embassy bi ñu process yëpp dugal ko in the diplomatic mail bag mu dem straight away to the ministry of foreign affairs then mu dem to the immigration ñu prepare passports yi yëpp then you put them back in the diplomatic nag uh, mail bag ñu indi leen uh, Washington then ñu call all the Gambians ñi nga xam ne riñu nañ seen passeport ñu jox leen ko soo def dina génnee burden bu rëy seen loxo maa ngi remember ma nekkee London dama daan dem all the way up to uh, Sweden and in those days joxoon nañu doole nag because problème bi dafa bari woon su sa passeport expire doo ko mun a doo ko mun a renew very quickly te da nga dee am ay problème ci réew yooyu leen euh, Sweden ak Norway ak yooyu so we had the stamp of the embassy of London boobu lañ doon demee instead ñu yónnee ñu seen euh, passeport yi at a given moment dañoo dem ñu gis leen ñu mun a renew seen passeport yi yëpp at least prolong the passport duration pour que buñ am benn social problems ak policier yooyu macha allah loolu am na solo ah, docteur Diop man laaj la rek final correction si yëppi embassy si wala ah, loolu bi nga si sa carrière yëpp as a diplomate liggéey nga ci dëkk yu bari ban dëkk nga gën a enjoy ah, in terms of liggéey lan moo tax nga gën koo enjoy wala boog ban dëkk nga gënoon a am jafe-jafe ak lan moo tax nga ne lan moo waraloon jafe-jafe bi Um, non to be frank with you uh, amoon nañ a very good relationship ak France ak Angleterre uh, Brussels later on Germany tam balaa maa jógee London because ñu ngi doon cover Germany from London Germany tam ñu ngi amoon very positive things and ngi doon contribute a lot to uh, uh, social uh, developmental projects doo mun a wax ne fii neex na fale leneen la depend on the quality of relationship bi nga am ak dëkk bi time yooyu ci on the Kile, eh, on the yeah, on, on the Jawara, we had a very smooth relationship. And for the short period that I was in the diplomatic service of the Gambia, then furthermore, you am uh, bi Yaya Jammeh ñëwee moom quickly the advantage of having this type of strong relationship ak yeneen réew yi moo gën a forcé sax pour suñu relationship with Arab states, like uh, Islamic states, mainly Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and so on. The guy, they are, they've contributed a lot to the development of, of, of, of this country. But one thing la buga you xam ko relationship with the with Great Britain you bari understand ko gis nga Angleterre wala France eh, the the relationship that they have with their former colony is still there. Whether it's nice to say it that way, but let me give you an example. Gis nga Gambia sudeme to the World Bank wala to IMF purbuga bugg am loan the first country that supports Gambia automatically is Great Britain. The same thing applies to Senegal with France. When we go to the EU and we are trying to get assistance and the Gambian file goes, you can be fully certain that among the first people, if not the first person, put would defend the Gambian file be ak be bi, mooy Angleterre what happens? Instead Angleterre ci boppam jox la 80 If yi su jaaree through the EU Angleterre participate pour nga am loan boobu wala grant boobu pour sa development. Angleterre par exemple dafa fay about 65 million and the rest perhaps say pour mu 90 million wala 100 million the all the European countries ñoo ko dajaloo pour boole ko ci but always the component bu Angleterre di dugal moom mooy gën a bari because there is this psychological link despite the fact that we are independent their government feel morally responsible for some of the things that happen here and the developmental projects. Our electrical system, our medical system, all based on British standards of of of of of of of of of production soo demee ci suñ lopitaan yi suñ garab yi. macha allah ngeen jéggal ñu rek ñi ñoo toppa di ñu seetaan docteur Mamadou Lamine Sidat Diop mooy suñ ah, guest fi mu nekk nii yéen ñi ñuy toppa Niokhobaay Show la ci Gambian Talents TV seasoned diplomate foog ñu waxtaan ak moom daf dee baax ñuy aide askan wi not only to talk about am. Um, politic bi li nekk di xew and like is saturated we are doing those things but dafa baax pour ñu jàngal askan bi ñu xam naka la am na diplomate bu toog foofu di déglu docteur Diop koo xam ne xamut lii léegi nekku training si duy am ni mu war a amee yu ci bari am na nu moo demee palaas yu bari dañ leen politicize joxatuñ ko ñi ko yelloo ñi faa liggéey du ñoo xam ne ñoo mun a liggéey liggéey bi am wala ñoo xam ne jàng nañ ko wala ñoo xam ne seen xam-xam màcc na si dañuy seet koo xam ne mooy represent seen interest maanaam président di seet ñi nga xam ne ñoo koy represent moom ñi bugga wala boobu ci am interest am wala partisan politics dañ cee dugal pour appoint people wala ñu fa toogi tamit rek dañoo seet lu leen neex ñu def ko utee nag ak ci jamono jooju there is no doubt ci the Gambian civil service how productive it was how efficient it was am dañ daan wax lu bari ne this was very encouraging Gambia had one of the best civil service. I interviewed um, Mr. Burama Diba um, that worked at Gamtel, and he told us mu wax ni lu bari loo xam ne def nañ ko ci jamono jooju noonu am um, technicien su fekkee ne Mr. um, uh, Diop mu ngi line bi rek mun ngeen ko dugal si waat but Burama Diba wax nañu Gamtel si jamono jooju am um, yoo xam ne ñu ngi ko doon def ak naka la contribution bi nga xam ne munoon nañ koo def how Gamtel was number one ci biir Gambia kon it's important instead of ñu focus ci politique bi rek mm. suñ indee ñu mel ni kàngaam yu mel ni Sida Diop ñu waxtaan ak ñoom mm. ñu edd askan bi ndax du ñàkk dina am diplomate boo xam ne dina ko dégga koo xam ne niñ ko appointé was politically motivated moom xamal nañu si gannaaw ne jamono jooju position suñ la ko joxee da nga am pour am proper training so yaa ngi doon wax suñ relationship ak London ak contribution bi nga xam ne dañ ko def towards the economy of the Gambia Britain feeling morally suñ dellu gannaaw ci yenn yi wala li waroon xew suñ dëkk fu mu waroon a àgg àggut fa ba suñu waroon a jox téeméer am na nu demee juróom-benn fukk bi yëpp ñoom ñoo ko doon def docteur ma bàyyi la nga continuer ci loolu rek. Hmm. ok ne eh, Gambia am na chance bu rëy. Hmm. Eh, li lee tax eh, bi ma gisee di weight of li Angleterre doon def di ñu support li nga xam ne on a budget and various things moo tax bi mu amee ay nit ñu foog ne woon Angleterre daf doon support opposition ci time boobu ñu pousse euh, président bi bem decide ne dafa daxa député ambassadeur Angleterre ma waxtaana président bi mu ne ma ko def ñaar ñetti yoon daal su ma travelé rek ma yëg ne daal gaa yi ñii doon puus pour mu dàqa député high commissioner bi <laughs> ñu ngi doon puus benn tey so bi ma jógee Burkina Faso balaa maa jógee foofu sax ma dégg ne ñu ngi dàqa ñu ngi jox euh, député British high commissioner bi three days pour que mu jóge Gambia loolu nag lu graaw a graaw la xam naa ñi ko doon puus xamuñ sax conséquence bi moo nekk pour réew mi man nag ay come from a school of thought boo xam ne suñ la joxee liggéey pour nga def pour advice président luy create stable government loo xam ne dina tax suñ funding yi baax suñ demee international organisation si UN AU ak fu mun a nekk ñu mun a build a solid relationship tam xam ne tam Angleterre dinañu support yeneen réew yi dinañu support léegi nga daxa deputy high commissioner representative of the queen te time boobu maa ngi doon prepare pour président Jammeh parce que Angleterre bëggu doon ko receive pour ñu receive ko so in the middle of that ñu daxa deputy high commissioner bi so ma gis ko ma ne ko ah président man li ma yedda mënu da xew so therefore dama resign mu ne déedéet demal Angleterre nga ne leen yow defuloo ko man maa def but that will be very irresponsible on my part so noonu laa génnee bimu bimu bimu mu bi mu uh, British Deputy High Commissioner bi but with very good will because generally sooy liggéey bul nangu stay there only pour danga buga sa poste su so feke yangi ange ange liggéeyal sa government te tam nga gis ne sa advice jëluñ ko da nga war a génn ci poste bi nga jox ko keneen loolu laa wax président ma ko nga jël keneen koo xam dina def exactly li nga bëgg mu def without any acrimony président nangul ma ko ma génn ba den ñu bari ñu ngi fa woon pour jéem ko wonne ba sidaat daf la jàmbu daf la bàyyi daf la lii mais loolu mu ngi suñ gannaaw léegi eh, mais li ci nekk teaching mu mooy ne. technicien docteur. si nag dam docteur wax nga lu am solo. waaw maa ngi ci loolu baalal ma technicien si ngeen fast forward loolu rek please to some extent am pour su ngeen maa dugal so that docteur mun maa dégg na nekkutoon di ma dégg li ma la bugg a laaj foofu noonu. Mhm. waaw ndaxa. Mhm. li ñoo wax persona non grata jox deputy ambassador mm. of of UK to the Gambia persona non grata mm. ne ko mu génn dëkk bi jox ko ñetti fan. Mm. bu yàggul rek wax naa ci loolu ba ma référence ko deputy ambassador boobu naka la tuddoon. Mm-hmm. origine indienne la amoon da amoon naa tur bi ah. ok so ko fàttale ko wutit lu yàgg la mm-hmm. so su fekkee ne um, lan moo taxoon waaye di député ambassadeur waaye di député ambassadeur lan moo taxoon daaxuñ ambassadeur bi ñu daax député ambassadeur bi wala député high commissioner aha yow quite right xam nga time boobu uh, lii yëpp nit ñi uh, xamuñ ko uh, opposition ci réew dafa am right pour consult any embassy any embassy so moom te ñun dañ ko daan def ñun biñ nekkoon London euh, pa bio jaane ak man conservative party bi daf ñu daan invite labour party bi daf ñu daan invite dañoo am seen documents si ak yooyu nothing preventoon nañu pour ñu dem seeti ji di representatives of the labour party wala di conservative party am fa nit ñoo xam ne am nañ influence mun nañoo dimbale ci yenn yoo xam ne ñu ngi koo laajte ak yooyu yaa so therefore uh, Mom dafa nag dafa jëloon liggéey bi he was very young <laughs> dafa doon jël liggéey bi with a lot of enthusiasm di gis ñoom in OJ di gis ñoom in uh, opposition parties, si yëpp di leen di gis ji mais suñ mbokk yi nag ci suñ uh, government bi ñoom they think that dañ foogoon ne embassy ak government rekk ay deal by the way ma ma waxaale ci lenn rek gis nga recently uh, ñun dañ decide doon suma uh, parti bi dañ decide doon ne dañoo dem uh, visite ji Senegalese embassy yi balaa registration bi because rumors yu bari ñoo nekkoon ci réew mi ne senegalis yi wala foreigners yi dinañ jéem a ñëw pour jéem a bokk ci suñ élection yi So you decide dem them, this is Senegalese ambassador, and we're going to see the Guinean ambassador, Guinean ambassadors. Yep, ci waxtani jama because man ken lu muna wax ne dina nek negative against Senegal. Mais yalla def biñ fa démé ñu ne ko rumo ci lengi fi te in the spirit of very solid relationship te buñ indi any acrimony between Gambians yu commencé di bañ Sénégal wala di foog ne sénégalais ngay def lu bari ci fii dina baax pour ne euh, sénégalais yi ñu ñu ñu bugg a register into the Gambian this thing buñ ko def te yàlla xam naa du ma jël crédit bi pour man because that mission even kile Ajay sek moo doon di leader Oh, I was there Ajayam Sek, Ramsia ak Tombong City. It coincided with the fact that Senegalese ambassador bi ci they déggoon na rumors yooyu yep. and Mungedon ngi prepare in the spirit of good neighborliness to go around the country pour wahale Senegalese ne in the spirit of good neighborly relationship election B, election in Gambia, la dañ bugg a seen souveraineté soo sori leen lii te bu and mu mudefko, mu def dem wër eh, six weeks after that the président Barrow yëg affaire bi wala ci lañ ko ko wax which is which shows that they are not informing him correctly and at the right time ah ci la wax ne dañ dem ak Grèce sénégalais ambassado bi jëm ko forcé ne ko ñun bugguñ gars yi ñëw fii ñun <laughs> ñan lañ pour bañ loolu man maa ngi jàngale eight years at University of Dakar <laughs> maa ngi laa wax si sax leer na bugga na bugga naa wax leen ko bi ma jàngalee di university bi ma bàyyi university i got a pension from the University of Dakar and can I tell you that I have no pension in my own country yaa ngi gis so therefore Dolu is just to come to the fact that every opposition party has access to all the embassies. waxuñ nga dem ngay sabotage sa gouvernement amuloo loolu mais mun ngaa discuter sa ñoom mun ngeen a yegal seen programme ak lanay seen lifin lanay possibilities of the close relationship is nga tay. ñun liñ bugga moom everything mu smooth with Senegal, with Guinea, with Mali, with European countries, with America, and so on. So that duñ nekk ci position boo xam ne dina indi jiixi jaaxa sudden case there is a change. That nag foog naa is a responsible thing to do for every state. li tax wax nga benn point bu ma interest bu baax moom mooy lan la Gambian administration meloon Mr Diouf suñ be, bi moom mooy euh, biñ décidé pour defar coalition government bi when ñu choose président Barrow be mu ñëw nekk président unfortunately kalaama yiñ bindoon liñ expectoon pour def yu bari ñoo yàqu woon Gambia ñi la ko doon waxee administration bi mu amoon financial instructions regulations united foreign service uh, regulations and so on suñ budget yi suñ uh, accountant general bi suñ auditor general yi yooyu yëpp lu dëgër la woon suñ la tegee benn bant rek immediately dañ ko apply su fekkee ne da nga def njuuj njaaj ci sa department immediately you have to pay for it and then you have to be even dismissed but during these 20 something years bit by bit things eroded bu njëkk bi at the budgetary time bi ñoo defar budget ministries yi dañ daan wax ne dinaa soxla ñeneenti moto pour di agriculture department benn tractor fii and so on yëpp dañ ko doon def at the level of the ministries dañ ñu def ko ci budget bi su moto yi àggee dañoo dem ci ministre bi ministre du ministre bi sax permanent secretary bi moom moo leen a distribute loo xam ne soxla nañ ko lopitaan dafa defar budgetam completely estimate ñaata nit ay feebar façon yi garab yanay ñëw lopitaan bi moo ko jere mais léegi follow up questions euh, ngeen palal ma rek technicien si ngeen bàyyi ma si bi parce que su ngeen ma génnee rek docteur du ma dégga Mangiamon, amone a lot of follow up questions for mom, but mënuma ko woon lajte ngir yen ak ma si screen bi so please bay len ma ci screen bi wala ngeen monitor di set li ma nek di def so that um, waxtan bi gene muna mun Doctor neex docteur mang la don laaj fi ma emon ci yow ñuy wax ci nga bayyi am um, nguri yaaya jamme am um, gene dafa dakh ci di deputy ambassador bi to the Gambia um lolu motax nga bayyi mm. ngene dafa am ñu ko doon suuf suufu ñu mm. wax ak mom si suuf lii dafa mel ni syndrome la ci biir Gambien wax nga ba àgga ci kii di um, président Adama Barrow moom tamit um, ak li nga xam ne wax na ko which dinaa si doon bugg a ñëw ak yow because it's one of the questions li tax sax ma invite la pour laaj la but dafa mel ni trend la ñan ñoo doon wax ak président Yaya Jammeh ñan ñoo ko doon wax sa affaire yow um, wala li nga ko doon wax ñan ñoo doon def di wax sa gannaaw yow yaay ministre bi yow yaay ki nga xam ne yaa ko war a edda moom président bi ñeneen ñan la Yaya Jammeh doon déglu non uh, gis nga head of state. Mm-hmm. Uh, position bu diis la. mënuma mm-hmm. uh, laa wax ne kii yee kile ñoo ko doon def mais amoon na ñoo xam ne ñu ngi woon ci gannaaw di tiital président bi di ko ne ah suñ moytuwut British ki dinañ dimbale opposition against us and in general président nitla la suñ continuer di ko expliquer di ko wax yu bëree bëri finally <laughs> yëf yi dafa dem for his own self survival so loolu Momo moo taxoon man ma abal ko place bi ma very politely and you see that bi buy air. I went abroad I was doing consultations for the African Union, Demnabe Haiti, pour FUFU for pour in Haiti, worked with the parliamentarians and so on, be election and be, um, be preval neka president of the republic. But frankly, duma nekk fii pour castigate kenn ñoom ñoo ko def but that is still continuing and pan ma gàttal wax because something la hamne, xam ne dafa delicate euh, president B Bim mu power dafa ne man two years wala three years ma dem after a while guy gisne gis ne ah comme que président and some of them ñu gis position siñ am perhaps duñ ko am su fa nekku su fa su fa rek ñu commencé di eh, sow the seeds of telling him that yo mun ngaa stay ah comme que yàlla moo la ko jox yow yaa win ba pare di wax ne opposition ñu ngi fi woon twenty something years mënuñoo win yow yaa win soo bul bàyyi loolu nag bi mu duggee ci boppi président bi ba mu defar youth movement sam yeeg yooyu ba gars yi commencé di contest ba ne five years foog mu jeexal ko bi ci five years bi jeexal ko yàlla def na jeexal na noonu ba gis nga ne suñ constitution bi bi nga xam ne ñu ngi ko waroon a vote voté wuñ ko lan la ñu loolu defal liñ constitution biñ war a def wuñ ko actually fiñ nekk nii monsieur Diouf ñu ngi nekk a country without a constitution we are using the old constitution of course ba election yi ñu ngi nekk tam e country xam ne sa national army is not functioning économique moo fi nekk ak loolu li moo cos European Union su fekkoon docteur nga baalal ma suma technicien si dañ ma dee liita dugal ci am bot sooy wax dama dee am follow up question am maa ngi la doon de bugal laaj si nguuri Yaya Jammeh it's very important pour ñu leeral loolu yow liggéey nga foofu it's historically proven wala dañ dee wax ne yow yaay the first person ku resign si nguuri Yaya Jammeh ngir ñu fa resign xaw nañoo bari de waaye ku resign ngir ni ñoo doxalee réew mi neexul la foofu docteur bugga naa ñu taxaw fa yow nga toog nga ne bi yow yaay ministre bi yow yaa ko war a edda ci naka la war a doxalee réew mi président bi nga wax ko dara defut loolu mu def leneen lu uteeg yow li nga ko wax nga ko man lima ma bugga wala li ma la edda yow defuloo loolu neexul ma kon damaa bàyyi hmm. naka la Yaya Jammeh jëlee that resignation from and technician si please bu leen ma génnee screen bi because I want to have a conversation ak docteur naka la Yaya Jammeh jëlee woon loolu monsieur Diouf deme demeewul noonu gis nga président mm-hmm. moom di head of the diplomacy tey su président décidé ne dafa bugg a ubbi eh, embassy eh, Venezuela wala bendika foreign minister bi dina study the possibilities of doing that to open the embassy but minister bi moom the head of diplomacy moom set strategy in mu to def pour maintain government bi in in a position of an advantageous position ci dealings yi def with the outer world yaa ngi gis soo bot man duma doo doo mën a wax président bi defal lii soo ko defut ma dem du noonu dama hmm. ne président suñ daaxee British representative yi we are going to lose the support hmm. of the British loolu soxlawuloo ko cee boole sax hmm. yaa ngi dégg waaw and comme dañ ko discuss three times mu ma wax ne duma ko def mu ñëw def ko kon man li ma war a def correctly moom moo ma appoint moom moo am doole bi ma jox ko foreign ministre mu appoint somebody else koo xam ne <laughs> dina approve euh, liggéey bi mu def mhm. so therefore noonu la xewee melut ne xëccoo la den waaw loolu laa loolu wax ni ok so bi nga joxee bi nga ko dellooyee bi nga resigné noonu naka lako ko jëlee because eventually Yahya Jammeh eventually ci liñ jot a gis ci li ñu taarix wan wala liñ jot a mhm. gis ku resign noonu ku nekk ñaareel du ko dee jël lightly dina gis ne da ko mhm. sobote surtout yow in mhm. your case am na ñoo xam ne mais bi resign nañ sax based on other reasons waaye yow si sa case yow da nga design pour resign da nga decide pour resign ngir edda nga jëluñ sa edda nga foog ne sa liggéey bi amul like njëriñ daanaka you are not occupy you not being productive si liggéey bi ma clarifier la fofu bima bima ko waxe lolou ma binda ma binda mo accept suma resignation mm -hmm. and uh, to be very frank with you I continued time bu mo def reception official reception fa dan invite si Cissé mo ma send uh, send uh, invitation and let me even go further bim mu gisee international community bi were still interested in my expertise and uh, naka la tuddaati ni ma dee <laughs> and so on mu jox ma mu jox ma diplomatic passport for five years. Normally, diplomatic passport for two years renewable. Mu jox ma so there was no acrimony but despite all that juuf amon nañu bari ñoo xam still they could not understand why they cannot put him in conflict with me. ok so léegi man laaj la ndax there was any element of truth ndax am na benn dëgg bi nekk ci ne Angleterre dañ doon undermine nguuram di jàppale opposition bi xam naa ne wax nga ba dugg ci président Adama Barrow ak li mu wax ni hmm. wécc naa ci léegi waaye pour explainal nga ñu si gannaaw ne there is nothing wrong dara wrongut uh, um, uh, si embassy opposition di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem Then them further did it. Angleterre was receiving the opposition parties, talking to them, and they were, whenever there was something, even Tenyung Kodak, Vienna in Hewefi, uh, opposition, Bidanyo, United Nations, the embassies, Yegalen, Yenen, but embassies, let me tell you, they are very, very prudent. They never, never, Buga Dimbale, <laughs> opposition illegally in a country. It's, it's not done. They can hear, they can try to negotiate, they can use their influence to be able to convince the head of state and so on. But definitely no country will tolerate an embassy boo xam dafa jema uh, sabotage sa government te embassy si seen boppa xamoon so hmm. British yi what they did was just to retaliate they expelled uh, some of our diplomats from London. And affair BM M44. for some time they were angry. But then during my period, mm. uh, sometimes they were angry. But during my period, they had already established a very big office here for development. And they maintained it. Hamna mungi fi bentei. Aha, so legi si affairi um, embassy uh, uh, yu, yu, yaya jamerada yow trend bi ñi ya. follow after hmm. ku i dañ nga mujjé ci ñu prosecute la wala bok bala nga bay sax ñu hmm. quickly am um, announce né dañ la fire hmm. ba paré prosecute la am ya, um, lolu nak yow eh, lan nga foog ne mooy sa secret lan moy won secret ci daan wala lan mo change ci digënté bi non but the president dafa xamné man bi ma ñëwee and I'm not boasting about it re-establish na relationship ba Morocco invite ko Morocco ñu ngi doon wax sax ne sénégalais yi ñoo bañoon pour Morocco receive ko Morocco receive ko ñu dem France we had a very resounding this thing there ñu ñëw America uh, Madeleine Albright ne ma fekk maa ngi doon négocier ta ma ne ko soo buggee Mamuna, am any influence on my ambassador yéen ñëpp on my president yéen ñëpp da ko you are not very warm with him da Bullen bu leen ko ostracize ba ma am eh, nataal man maa ngi taxaw Madeleine oh, président a ngi taxaw nii Madeleine Albright ak Zainab Jabariki. Albright took photos with Jamie in order to do this thing and then they had a chat because I was doing everything change the image to get him respectable. He's a respectable man. I'm not saying that uh, he is not. But you see vision bimo am ak ni nit ñi di wax gis nga uh, Diouf situation biñ nekk nii dañ war a am all our institutions ñu bloqué leen strongly again ñu xam ne ñu ngi amee a powerful civil service ñu ngi a parliament that is working properly that we are having all the other rules and regulations of our police and our army, their promotion methods based on merit. nga xam ne tey soo eewoo nga dem nga ji sa sa office provided the full mun nga xam ne di nga ñuy la promote benga nga pension te doo eewu rek dem office élection ñu ne dañ la faya loolu loolu lañ war a dellu te xam nga mm-hmm. ba duuf ñu am nañ opportunity bu rëy mm-hmm. Gambia is a very small country mm-hmm. two million inhabitants is less than half of the population of Dakar Mm-hmm. less léegi docteur Diop ma ñëw si um, uh, uh, sa li mm-hmm. nga génnee si nguur Yaya Jammeh nga nekk bitim réew di liggéey foofu noonu eventually Dakar gi nga nekkoon noonu um, am na a lot of things yi daan happen foofu ñëw nga si diaspora bi nga ibbi um, nga open up and nga start di wax di criticize or disagree with nguur Yaya Jammeh nga commencé di disagree di expose ah. yenn ci nguur Yaya Jammeh lan moo waral loolu bi nga génna ngeen yëfi deputy high commission Angleterre biñ moo tax bi nga génnee eventually yaa ngi doon criticize nguur Yaya lan moo waral am loolu ok ok ok euh, bi ma resigné I stayed in the Gambia for ten years mm-hmm. di dem di ñëw di dem ci ay meeting it was during that period that uh, African Union bëggoon ma dem Liberia but they finally were able to send me to send ma Haiti ak yooyu te maa ngi ñëw di dem wax naa la ne despite the fact ne nekkuma ci gouvernement te maag despite the fact ne nit ñaa ngi doon am na ñu bari <laughs> am na ñenn ñoo xam ne dañ bëggoon ma am direct conflict ak moom Jammeh would never go that far léegi bi mu defee execution of these nine people ba imam Babali wax ci ak uh, Ami Bensouda hmm. uh, ma dem Dakar I was just to go to Dakar then ma dellu si bi ma demee Dakar ma fekk fa Buuba Balde ñu am suñ benn mu amee benn groupe bu mu amoon foofu leen den eh, ñu ngi amoon a very good brother very good eh, Gambian ku tudd Duudu Jóob koo xam ne really moom eh, defut yëngatu yu lifin ci ci affaire politique bi mm-hmm. but he is really a statesman mm-hmm. so ñoom ci time boobu ñu arrest nag <laughs> suma du ma wax ne suma xarit la bot somebody koo xam ne dama gisante moom bu baax a baax dañ doon waxtaan moom mooy imam Babali moom moo ami ami benn suuda so bu ma fa demee am nga time boobu maa ngi dugg di Gambie di génn di dugg di génn ay no problems ah su ma demee lounge official lounge bi ci ci ci ci Banjul la police yëpp dañ ma respect ci ferry bi dañ ma jox priorité ak yooyu bot bima ma àggee ñu ne ma nak sidat community bi fa nek ñu do mu a nekk ni nga nopi ci affaire bi suma xelaté Baba li mu ngi prison Ami ben souda mom dañ ko gawa bayyi bàyyi sax ma decide nak condemn the killing of the nine people ak tam wax affaire yi Baba li and even telling the imams ne nañu gada benn Friday suñ jullee ba pare ñu ñoom ñëpp march towards Gambia pour dem request the release of Imam Babali ci la ma ay nit o a few days after ne ma Sidat <laughs> léegi bul dellu si Gambia because soo dellu see am nañu bari ñu instigate góor gi soo moytuwut sax without him saying even sax dina dina dina dina dinañ la dinañ la géteen Now I decided then to "Chill and create now the Dakar branch. ñu commencé the the di wax affaire problem in Dakar affaire yi problem yi Gambia Biakson, and somebody who was very instrumental because from a first declaration ci moom laa ko suñ brother bi uh, Pandiri Mbaye he really gave me the antenna to talk on various occasions discourse the xew ak nan lañ wara defé defee suñ solidarity be move on to all these things xam ne yëf yi xamone nga debate ci yëpp ba culminate suñ meeting bi in rally, rally ñu rally Raleigh gars yi ñëw di waaw ñu ngi North Carolina. moy waaw biñ joggé ci lolu ci la gars opposition bi decide to at least collaborate Yang ngi fàttali di first meeting. was uh, Dabo, OJ, Akmai Fati. Mm -hmm. Then afterwards, you know, the things started getting slow. But this was it. That was the reason why I joined the, the, the this thing. I wasn't saying anything that was not already in record, but I don't think the president appreciated the fact that I got involved in the debate. pour gars yi ñu rey te yàlla xam na ne tam li doon xew tey nga ñëw liggéey ëllëg si ñu dismiss la ñu try la yóbbu la NIA and so on you could not you could not. so sa diplomatic passport bi naka la mujjee dañ ko mujjee nangu sa diplomatic passport bi dañ ko mujjee nangu. non non non non still with me d'ailleurs dem na ba mu jeex non musul ko ko claim sax musul ko laajte no there was to be frank with you Yaya Jammeh xam na ne liggéeyal naa ko te xam na. yu bari sax ñu ma wax ne suñ demee waxi ko ne sida dafa def lii dafa def mu ngeeg british yeeg américaine yi dañ la bugg a daaneel eh, lii la wax lii la wax daf leen a wax ne lii lii sidaat ci liñ ma wax lii <laughs> lii sidaat wax na ko mais bi bii moom am soone moom waxu ko so to some extent he was even protecting me against people for who for some reason <laughs> wanted me to be in conflict with but it's all in the past man kontaan ne léegi I'm not Kamlanyan new government, and I don't want to go too much in that detail. The only thing I regret is the fact that people have been able to convince the president to stay on. Not only continue to tell him to stay on for five years, but they even want him to contest elections. But then ñu dugga ci loolu ñu dugga ci ñu You ci Yaya Jammeh kon ñu dugga You président Adama Barrow um biñ toogee def nañ la ambassador apoen dellusiwaat nga Gambia bi New Gambia juddoo liggéey nga ci struggle bi def lu bari demoon mm. exile mm. daj lu bari dugga fu nekk nag ci àdduna bi pour mm. wane li Gambia doon dunda ci nguuri Yaya Jammeh yàlla def na 2016 Gambian si come together ñu vote président Adama Barrow in ndax yow xamoon nga Adama Barrow before 2016 election boobu I never, I never met him. man su bi as an ambassador uh, mainly sugge ñaari suggestion la amoon Ahmad Ba wanted me to go um, for naa OJ and bëggoon ma United Nations because hamon nang li ma and the prestige Gambia had in the UN. Uh, then there were others who thought that because the mangi jàngee France the ngi family have good connection mm-hmm. it's good that madam the dimbale suma suma me for foofu and that recommendation came from eh, Dabo moo ma recommend to Baro and Baro approved it so madam France be madam demee France be my aga. and I have to say this be my aga, fekk gaa yi prepare this meeting in Brussels France had already slated about 30 million euros for Gambia. By the time Maneka for, for about seven months, it has moved to 40 million. By the time ñuy them Brussels, France gave in the Brussels meeting 50 million euros as a grant, not as a loan. So therefore, I think I did quite a bit of a job there. And not only that, for nine years, the Gambia was trying to become a member of Francophonie. It's the equivalent of the Commonwealth. You know, when you are a member, you have... Uh, you have grants in agriculture, in cultural affairs, in university training, and so on. And I was able to negotiate with the African francophone countries, with the European francophone countries, Canada, yep, full you support the Gambian candidacy. And I'll tell you, the day that the Gambia was accepted as a member of Francophonie, Saudi Arabia and five other countries were refused. Can you imagine a country like Saudi Arabia with all their weight and so on? That Gambia, because what I did when I came, by a stroke of destiny, when I was presenting my credentials, she, uh, Emmanuel Macron, ki President Macron, Macron, mm-hmm. Macron Macron, yu bari mané ko dina count on you pour ma mëna accélérer son adherence pour ñu mun develop university bi develop language bi and so on then I had a very good relationship with Le Drian his minister of foreign affairs so yàlla dimbale ñu rek very quickly the first year ñu ñu dugga ñu dugga ñu dugga francophonie so unfortunately bi suñ contract yi all those yi nga xam ne Dabo moo leen recommandoon pour ñu nekk ambassador were considered UDP ambassadors. And that, I must tell you, Juve, that's one of the biggest mistakes for a simple reason calling us back was so costly and the disruption for example Mantaguma, France The ñëw rek dama biñ report ma ñëw in one minute francophone bi nga wax nii Francophone, bi nga wax ni biñ ko seto it had a lot of backlash dama bëgg a wax ci no boobu noonu um, am received nañ a lot of backlash hmm. because of Gambia's relationship ak Sénégal ak président Barrow Macky ñu bari ñu ne this was a way Macky Sall moo togg lii pour mun a def Gambia a francophone lii basically Sénégal dafa jéem a coloniser Gambia through Macky am lan nga am pour tontu si loolu yow yaa ngi wax ne yow yaa togga loolu yow yaa ko initié bon ñu bari ñu ngi filoon ne Sénégal daf doon bugg a ñëw moom Gambia léegi te ñu bari have this belief ne Macky Sall of course Adama Barrow is am am am ci niñ ko waxee boy boyam la te dafa ñëw pour uh, colonize Gambia lan nga am pour tontu si loolu. na gis nga nag that is the <laughs> use language. That's the fakest news that you can get. Senegal had nothing to do with it. And in order to tell you, even when we entered Francophonie, it was Dabo who came <laughs> to, to represent Barrow. And Barrow, in no way, Barrow gave me his permission. Barrow gave me his authorization to enter Francophonie. It had nothing to do with that nothing to do with it. And we had no support. I got support directly from France. Senegal cannot refuse that. But it is not Macron, it's not Macky Sall in any way involved because Macky Sall and if you want, <laughs> Abdou Diouf was there during the time of Abdou Diouf. We couldn't enter the, the, the Francophonie. Five years, if Abdou Diouf the yëpp Gambie don't apply mënuñoo I don't know. They, they, they never. So kon Gambia yàgg naa bugg si francophone bi ba doxutoon. ok ñu dellu si waat ci yëf yi years ago nine times nañ binda, nañ def nañ lu nekk but we never did our file correctly. ok yaa ngi Mm -hmm. And the requests and the diplomatic moves that should take place behind the scenes were in there. Anyway, you know, I, I wouldn't like to, <laughs> to dwell too much on what I've done for my country. I've done it and it's over. And, i am, am, i uh, am not i am na solo trop ñu wax ko pour mm-hmm. askan bi xam ndax taarix dañ ko war a binda in the right way history should be written the right way Like you dellu si waat ambassador ambassadeur boobu France besides francophone leneen at Brussels meeting bi nga xam ne it was very important am leneen lan ci gàttal rek leneen lan nga jota achieve bi nga toogee foofu ci diir bu gàtta bi nga nekk ambassade France non ñu ngi doon def all what should be done with uh, ñu ñu ngi change uh, new method bi ñu doon joxe ay visa uh, to encourage tourism in the Gambia ñu ngi nekkoon tam am very good relationship with various countries, Canada, you know, other European countries, Romania, uh, Eastern countries, you know, as a normal embassy runs. Gambians contact on in Europe because we, <laughs> they had a quicker access to their passports and their visas, and then we were able also to uh, encourage a lot of them poor, new, Gambians ñu jéem a woog suñ ñëwee fii pour am seen nationality seen passeport yi xam nga ne a lot of Gambians in the nineteen uh, sixties and so on suñ demoon uh, by that time amuñoon embassy in France Gambian su demoon rek mais uh, Senegalese la they gave it to him straight away because then the Senegalese embassy was able to take care of them and they took really good care of them let us say they were most of them who are Gambians, the most prominent Gambians who are in Senegal have as an original passport which allowed them to have the, Sen the French, uh, French documentation and passport. They had Senegalese passport. So some of them wanted to be able to claim at least on the basis of their birth certificates, whenever they came back to Gambia, Ah, they went to the immigration, they saw to it that they did everything that was correct for them to be able to do it, and various other social things that an embassy would do, taking care of Gambians who are at university, who comes to, to came to see us. So, so ngene bi nga nekkee foofu yow da nga toog rek ñu recall la back ne nga dellu si waat Gambia um, uh, on the basis of the fact yeah. ne UDP nga. How sure are you ne loolu la de nga toog ñu recall la how sure are you that it was on the basis of UDP? No, all right. My my my my conclude right? Money, and then uh, Gambians in nekk they were able to feel that they've got an embassy and were able to have direct relation we even appointed somebody koo xam care of their nationalism nationalism and so on no let us be very fair let us be fair perhaps to to President Barrow uh, we were considered to be uh, ambassadors of the UDP okay President Barrow has a problem with the head of the UDP he decided to terminate his appointment as vice president. He terminated already the appointment of the former Minister of Finance. Mm -hmm. He terminated uh, the appointment of Diba, terminated the appointment of another mm, close relation to to to to to, to, to Lamin Diba Amadou Sane Dabo. Then mm -hmm. they decided yeah, and then they decided that because our contracts have ended, uh-huh. that you know, it's a very legal thing. Uh-huh. It did not dis- dismiss us. It gave us a contract, and it is at the end of the contract that he recalled us. Me, when I was recalled, I was I, was, <laughs> I was never given a prolongation. There were some who were given a prolongation six months, one year, and so on. But that's all a, a, a, fair thing. What I'm saying is, politically, that was his right. And for me, if you cannot have the head of the party and you hmm. consider me a member of that party, I should take it in good faith. And this is what I did. I took it in good faith and I stayed in the Gambia. And I'm even glad that I have stayed in the Gambia because I am present when things are happening in my country. And I will tell you that we are very confident of the fact that we should all work together, Mr. Juf, to see to it that we create an atmosphere in which we can have our elections, which, which we can have our constitution revised, our security reforms, our civil service reforms, and to come to a normal country. And Dr. Dukenga joined UDP. When did you join UDP? Wait, wait. When you, you're blocking me <laughs> when I'm saying something, what we want is to be able to see to it that the ECOMIG is able to live and we have a normal country. Now, to come to when I joined the, uh, the UDP, I joined the UDP uh, when, I, when I came back from exile. Hmm? When you just came back, are you talking about post 2016? Wala book um, bimla recall me. Bio bila dabo di nominate punga pur pur baro bimla recommend baro appoint la. Bimla recommend pur baro appoint la time where you really UDP before I even went to France, before I even went to France, I was UDP. And let me tell you one thing, and it's not because of that I'm a member of the UDP. Let me just tell you something that is quite clear. I decided to become a member of the UDP for various reasons. One, I knew Dabo as a very prominent lawyer at the same time, and the thing that Barrow, Barrow is using, because Dabo told him, Dabo is my direct cousin. My mother and his father are cousins. They all came from Dobo. My grandfather is the first Alcalo of Bansang. His brother Bakari Dabo was the one who created Bansang and my mom's father is the first alcalo of Bansang, called Fodemadu Dabo. You understand? And my mother's, my mother's mother is the daughter of Musa Molo. And that's why Musa Molo gave his daughter to the alcalo of Bansang, Sireng, uh, Sireng Bande, married Fodemadu Dabo, had Mansata Dabo, my mother, got married to Siddharth Job, my dad, and that is it. Well, Dabo and I are direct cousins. We've never perhaps been talking about that in the open, but when I was a minister, Dabo used to come to my house and I used to see Dabo. You understand? And Dabo would even come here and lead prayers in my own compound when I was a minister, and that was not wrong. There was somebody who used to come here also very often who was called uh, the leader of the youth movement. What is uh, which youth movement? Simbul Nyasi. Oh, Suleiman. Mm-hmm. Yeah, oh, Simbul Nyasi. Mm -hmm. Suleiman was in my compound all the time. Yaya Jame has never, never contested the fact that I see, I see, I, I, I see Dabo, and he knew our relationship. And so how comes, how comes, Sufek and Dabo, this relationship is there, how comes you were never a member of UDP, Chibu UDP, the Tanga, the UDP, the them through all they went through, ñoom daabo dinañ leen dégga dañ daan dégga ñu wax kilifa yu bari duñ daan nangoo am um, ñi uh, uh, jànga intellectual si borom xam-xam yi boku yi on UDP sa be post Yaya jamme lan mooy sa réaction ne da ngeen ragaloon Yaya Jammeh you distance yourself from Dabo and the UDP because ñi ko jegee ñoon jamu bari jànguñ woon ah. Can I, can I tell you one thing? Go ahead. The closest politician, the politician to whom I was the closest was Sadauda Jawara. Mm -hmm. Because when I was in the sixth form and mm -hmm. fifth form, I was teaching his children. Even if you read his book, you will see my name there, where he mentioned that I was the one coaching his uh, children. Mm -hmm. And you also have heard I told you after three months at Brikama as assistant commissioner, mm. it's mm-hmm. not anyone that they will just pick up the next day and appoint you assistant secretary to the prime minister. Mm. I mm-hmm. was close to him. I never was a member of the PPP. And then another thing I want to tell you, Jammeh never wanted me, and you can ask the APRC people, never wanted me to get involved in Gambian politics, in the APRC politics. I used to accompany them. Of course, he was my president. But many occasions, the vice president, I said to uh, Njai Sidibu, said, can you come to a meeting? I would like you to be there. But Jammeh never insisted. I was never a member, a member of the, of, I've never took the card of the uh, APRC. I was appointed by Jamie as foreign minister, as chairman of the University Commission before, without ever having as a condition to be a member of APRC. So let okay. me make that very, very clear. Yes, and with fine. Dabo, with Dabo, mm-hmm. with Dabo, I, I, I felt that uh, this was a time I've come back already home. I didn't know that I was going to become an ambassador in, in, in, in, in, in, uh, in the service mm, uh, of the Gambia. I was thinking of coming and settling down. I have got a very big farm in the Fuladus, you understand? And uh, uh, were my intention. But because of my experience in the Foreign Service, I was also, uh, it was suggested, and people like OJ, what is his name again, Ahmad Ban, and all, they were all very, very keen on me coming to do something for my country. You understand? And Dabo took it from that and he brought me in. And I see no reason why. And I do not even want it to be considered because I'm his cousin. I am with Dabo because I believe that with the type of experience he has, and we know all what was going on. we have lost our audio technicians lose nañ suñ audio Sida déggatuñ ko mun nga technicians si rek ñu fix sa audio bi déggatuñ la ñi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi fii ci docteur Sida Diop lañ nekk di waxal ah, Momodou Lamine Sida Diop moom mi nga xam ne of course he is a seasoned diplomat docteur mun ngaa wax rek su fekkee ne yaa ngi ma dégga ma seen sa audio bi mu ngi ñëw dégguma la de sa audio bi dem na off kind of uh, um, uh, technician. Muntata for more million. Dr. Isidat Job. Muntata for more million. Jama, wala lenyin pingota. Coronavirus musasa sotere ngansi andung amala nyimukeleti wala nyimusuleti. Aman sibo nyoto. Mo wili jama fata findu banko kan wala ne sa sasa soto andin ay faale virus man jaral soto bari fanan ak kibar bi ma mumunti ay pengu soto le si tay passé ya, docteur hello docteur wa deguma la bentay de Can the technicians look at the mic? Technicians, can we look at the mic? His mic is off probably. Can you look at the receiver to see if the receiver is on? Can you look to see if his receiver is off or on? Wow, dégg ne yes loud and clear yes loud and clear oh, now yeah, so xam naa that wi time is going ma don't like a very sa um, UDP You know, it's not based on family line yes so yeah that's what I'm telling you I am with Dabo because I know that Dabo will definitely uh, will definitely uh, Dabo will definitely be able to set things correctly at the end of the elections. Kanga Hamlulu, Dr. Job Dabo was there for several years, over 20 years, as far back as the, um, 1996. UDP was there. Lan Motah joined law on UDP all mm. along. How comes you are just knowing this now? Uh, uh, can, can I can I I've said already to you that even when I was a foreign minister, I was seeing Dabo and everything that concerns my family, all the ceremonies in my family, Dabo was there. And Dabo has never asked me to join his party. I think that is that is that that will be a very unfair statement. I decided voluntarily to be with Dabo, and Dabo I know quite clearly because of his training because of all these years of experience without getting discouraged is capable of really helping us to go through the reforms that we need, the stabilizations of the structure of the republic, and at the same time to see to it that we get respected. You see, Mr. Juf, there is one thing we should not forget. I touched on it, but you asked me a question that took me away from it. We are a very small country, 2 million inhabitants. The Gambia existed only by the political will of Great Britain, who decided in the 17th century that it was going to carve out along the banks of the River Gambia a territory that has the most navigable river in, the, in, in Africa. Gambia, despite the fact that we are so small, we are the only river in Africa that is navigable from the ocean to 200 to 300 miles in the interior of the country. This was why the British took the colony and they imposed on the Senegalese, on the, on the French, to cut us out. But do you know that before that, St. Louis and Gore Island in Senegal were belonging to the British, and they had to exchange it so that they could bring, uh, they could they could they could be able to use the river to stop the slave trade, to populate <laughs> Banjul with the mulattoes and the uh, and the and the other uh, people who were in Gore. You know, the first population of Banjul was from Gore and from uh, from Saint Louis. waaw dégg naa loolu docteur suma suma question bi to you was um, lu tax nga join UDP post Yaya Jammeh lu tax joinuloo woon UDP bi fa Yaya Jammeh ñu bari dañ dee criticize am um, am um, uh, the new generation comme ni ko gars yi di waxee ñu ne UDP 2016 uh, ñi nga xam ne bi Yaya Jammeh nekkee foofu dañ doon uh, join ñu woon foofu noonu you have a lot of intellectuals léegi ñoo xam ne join ne UDP even ñu bokk ci executive UDP am but joining one UDP mm-hmm. bi fa Yahya Jammeh nekkee yow si sa case ah. lan moo tax join loo woon UDP especially bi nga amee all these great oh. am relationship ak Darboe ak bi nga xamee ne am na all these ideas wala moom moo mun a yóbbu réew mi kanam lu tax yow join loo woon ci jamono jooju because I didn't join it then I didn't. I see no reason why I should justify myself as to when I wanted to become a member of the UDP. I am now a member of the UDP. I'm not an executive member of the UDP. I'm an ordinary member of the UDP. I am not in the executive of the UDP, but I am here, and Dabo is not pressurizing me or giving me any conditions to be in the UDP. On the contrary, I would like to have all the intellectuals who are here today who really want to participate in the development of the country to rally around Dabo. Dabo does not have the exclusive right of just being able to govern and exclude all the intellectuals. But they should, at some point, instead of dividing themselves to that extent, that we have about 19 political parties. Each of them, I think, are very sincere people who want to do something in the agriculture, in the industry, the development of the country, the river, and so on. Why don't they all come together? I am not forcing them to make a coalition government or anything, but I think we should make an economy of the intelligentsia that is in this country. Why should you separate the votes and get 5,000 votes here, 3,200, 500 votes around? While we would all come and have a pre electoral meeting. And they all know that Dabo has the majority. You remember that during the, the, the, the, the, the first transition, when everyone wanted them to have an independent candidate, Dabo decided that instead of just having independent candidates. We have all been away from our parties for 20 something years. We should know the weight of our parties. And we went to elections, and some of them had five MPs, others have six, or others have four. And Dabo came with 31. So Dabo is a majority, the intellectuals and politicians of this country. Why you bari ñu ngay wax ne credit bobu ñu bari ñu ngay wax ne credit bobu goes to President Barrow mom ci bopam door na denam ne mom mo fond on those um, um, um, um, MPs um, and by default ñu bari japon nañ ne yes UDP even though coalition la it was a UDP led government financially support na in fact not only did he support jël week of modem modem campaignal dem campagnal UDP um, uh, jël time of mu am vacation out of his am um, official duties modem dem mu campagnal um um am um, uh, MPs yooyu daan mooy sa tontu si loolu. very very good I I like that very much and I think you have you have some points in that but let me tell you the reality. The reality is Baro has won the elections because he's backed by the majority of the UDP, who are the majority who have, who have a standing in the country. When they were choosing Barrow, if he did not depend on the majority of the UDP, do you think that the Salas and the uh, uh, Ahmad Baz and all the other people will leave the way for him? Because they know that he is backed by the UDP and he knew it and he's saying it. And what I'm just telling you, and the most important part of this youth is that we are in a very delicate moment. Let us all do whatever we can to go to these elections without acrimony. Let's not start beating our chests for UDP or beating our chests when you are Barrow <laughs> or any, any other person uh, what is his name again, uh, Khalifa Salah or these new candidates. Hmm. But yo, Lanmoisa Tondo, how, how fair do you think such statement is to the other political parties that all came together? Evidently, UDP contesting election um, uh, against, and I said this, Dembarek Wahnane, there is no doubt So, Sugambia on uh, election, so in December right now, UDP or Barrow the most chance of winning the election. But coalition 2016 came together. I, I, did not, I did. Well, I mean, coalition 2016, political parties, yep, no, no, seven political parties and independent, you come together. Between wow. UDP, taxaw nañ for over 20 something years. Depuis Vaya Jameneke, UDP hmm. must win election. But when the coalition came together, I mean, eventually, um, uh, uh, Barrow was supposed to win. So how fair is your statement to the other political parties that Barrow was supposed to win because of the majority of the UDP? uh, Mr. Youth, mm -hmm. I have a lot of esteem for your analysis, mm -hmm. but I want to differ. I feel that anybody, anybody mm -hmm. who puts to question mm-hmm. the ascendancy at present of the UDP in the political arena of the Gambia, you are doing it only to create confusion and you are doing it in order to see to it that we do not go to these elections in unity. But whatever the case may be, and I promise you this, and the type of leadership we have, and the type of discussions we have, which leads us to be able to talk to not only the Senegalese, but we will be doing it all around us. We definitely and I completely, definitely know that the UDP, has a majority, and will go to the elections, and there is no doubt with the statistics that we have and with the type of number of voters that we have and the percentages that we have for the various regions to say, and I say this with a lot of modesty, that we hope that the UDP lead in the results of the election. I would like you and I, if you do not mind, to take this up in December. Okay. Um, léegi Dr. Diop mu UDP nekkuloo si executive bi bu yàggut ni two weeks ago dégg nañ président réew mi génn mu ne um, uh, mu wax wax ak xool sax nag ne um, uh UDP uh, ñu ngi euh, euh, euh, basically lawyer Darboe waxtu bu nekk mu ngi organise ay press conference mu ngi def yu bari am ci dëkk bi lu xew rek ba wax sax ne UDP dañ am ay talks ñu ngi dem fu nekk di bugg a decide ci time election bi naka voter registration bi di jéem a decide ñan ñooy Gambian ak ñan ñoo nekkut Gambian mu ne ngeen ñu bañ ba seen délégation boo xam ne seasoned diplomate te moo tax ma laaj la pour establishal Gambien si ne si seen diplomate nga indi ma laaj la question si ma la laaj yëpp si diplomacy I was building a case léegi liñ ñu jox la wax establish na ne si seen diplomate nga président bi mu ne si seen diplomate lañ yónni. no UDP yónni pour. I've not said that <laughs> président bi mooy seen diplomate la UDP yónni dafa yónni délégation pour ngeen dem wax ak ambassadeur bi tuddi Gambia yow yaa jiite woon délégation boobu pour ngeen wax ko ne nag Sénégalais yi génnee seen loxo si suñu élection loolu am na wala amul. ok mhm. I just bi ma mentionné loolu léegi nii. Mhm. clarify naa yëpp ci yow dama la ne. we are a matured political party. Mm-hmm. People with the experience of Ajayam Sek, mm-hmm. people with the experience, experience of, of the members of the party, and especially Dabo. Mm-hmm. When we went to the Senegalese embassy and raised our concern about this matter, there was no acrimony didn't attack the ambassador. The ambassador himself was ready to go around. Now, if the president, after six weeks, perhaps he was lately informed, learned that there was a delegation which went to Mohamed xam ne dafa dem Senegalese ambassador ne loolu tax Senegalese ambassador bi def to ci réew pour wax Senegalese buñ participer in the election nga xam ne loolu dañ ko sosal dañ ko puus ci ci ci président bi pour wax ko ne UDP dafa dem and instead <laughs> to show you either that around him ñi ko inform duñ ko inform bu baax moom choose ma moom xam na dégg na ne maa ngi ci boppa so foog na ne automatically man may leader of the delegation I am not even in the party Tombong Sedi is the head of the foreign service in the party Tombong Sedi is the head of the Foreign Service uh, uh, uh, Committee. Hmm, léegi ñu wax ñu wax ñu wax wax ji si olof. Um, maa ngi la wax loolu ci olof ci olof laa nekk ma ne la. Tombong hmm. Sedi ak Ajayam Seck mi nga xam ne mooy vice président ñoo nekk ci yëpp yi soo président bi informuñ ko correctly accuse na ma ne maa lead délégation bi léegi moom xam na ne lii ma woon. so léegi lu ma la bëgg a laaj ci gàttal ci gàttal ndax demoon ngeen gisi Sénégalais embassy bi comme ni ko président ah, bi waxee Sénégalais ambassade bi ni ko président bi waxee ne yéen dem ngeen UDP pour gisi ambassade bi loolu am na wala amul. Joof Joof I'm repeating that three times then you were not listening to me. Um, dama bëgg a wax ji wax ji leer pour yi. Um, <laughs> uh, nyati yon. Nyati, uh-huh, uh-huh, Okay. The last time lege. Uh-huh. There, man go for the last time lege. uh-huh. uh-huh. About eight weeks ago. Wow. Kila chisun discussion in the spirit of smooth transition. Wow and in this move to avoid acrimony, Senegalese, mm. the eh, blame Senegal for interfering in their elections and so on. Mm-hmm. You've been the Senegalese ambassador. Yange Dega, the head of the Foreign Service section, Moko Binda. Yange Dega. Because Bimko Binda Tombong Sedi, Mo Binda ambassador on behalf of the committee. Mm. Then, the committee, you decide as ambassadors to be able to go to see the ambassador with the head of the party. So Ajayam said, Mom will lead delegation. Be. So being deme, and we explained what is happening, the ambassador mom ci bopam mungi neka nek au courant. Xamone na ne li leen rumors yaangi ci. Mu jog, dem around the country pour seet yëf yi pour ñun affaire bi foofu la jeexee so six week after bi président bi déggee ne dem nañ foofu ne perhaps Sidat Diop mu ngi fa soo mu foog ne Sidat Diop moo fa dem ñu ne moom liñ ko wax ne dama attaque ambassador how can I go and attack an ambassador the ambassador went of his own free will moom moo demoon te wax ma ban Gambien bu honest ban Gambian bu honest mo hmm. muna wax ne mom ah bukan na Senegalese yi involved in the Gambian election so the fact that the Senegalese have made warn their citizens not to get involved no foog na president Barrow moko ko de jël initiative bobu su ko jëlut su déggee ne ñun def nañ ko mais daf ci war a lutax lu mu ko naxari su fekkee dañ dem wax Sénégal yi ne bugguñ sénégalais yi ñu intervene ci suñ élection lu tax loolu di ko naxari non for the record mention nga Aji Yam Seka mention nga Tombong Seydi keneen kan moo nekkoon ci délégation boobu there was uh, Ramzier, Ramzier, Ramzier Diab Ghanim was in the, we were four. We were four people in the, in the, in the delegation. That is all. Oh, so, okay. Let me, let me, let me, Juf, let, let me make this clear. You see, in your chisa télévision chisa uh, interview with Bugana naa dara mu leer defuñ dara boo xam ni sabotage to the president to the to to to to the government. We did not go to threaten the Senegalese ambassador. We have no right. And a Senegalese ambassador would never accept anybody in the Gambia, be you a minister or whatever you may be, to go there and threaten him. He officially deals with the Republic and he would have informed them. So legi fan la problem bi nekk man bugguma bugguma koo wax pour ñoom bi ne président bi they don't inform him or they don't inform him correctly Somebody just learned that the Senegalese ambassador went around the country telling people that Senegalese not to get involved. You know, see that you're more developed for them, to get threatened and so on. The president, Fim Hamene Demon Nanchi Embassy, that's six weeks after. We call the ambassador. I'm directly from the horse's mouth what happened. Or, Sudud Lolu, mu minister of foreign affairs to get in touch with the ambassador to know what happened but suñ xaaree without informing him thoroughly ñu and he got very angry about it I know now he regrets it <laughs> because he's got the truth of what of how it happened and I want also I do not want to uh, finish my interview giving the impression that I'm against Barrow or would like to put him in a humiliating position. I can't. If I do that, I'm not a diplomat. Whatever he may be, he is the president of the Gambia at present. And if I want to give any prestige to this country, until he leaves the presidency, we should treat him with respect. And this is the reason why I told him I, this is the reason why I told him that, sir, as you could not keep your three years, now that it is five years, if you can abstain from participating in these elections, you will recuperate all your integrity. You have already prepared your party you would be able for the next five years to prepare yourself, build up your party, so that in the five years' time, when you want to stand as an election, there will be no one who will have the moral authority to tell you not to do so, and you would have recuperated your prestige. waaw waaye if I do not finish my sentence and you cut me. go ahead. That will, him, that, will, that will give him the prestige that he needs to come out of it as a freshman and to stand for elections next five years. But if he loses the election, he himself knows his integrity will be gone, and there will be a lot of things that we put on stake. Now I listen perhaps to your last question. Yes, li ma la bëgg a laaj rek mooy pour muy leer bi ngeen demee si embassy the only thing lu ngeen waxtaan ak ambassador bi mooy pour ñu wax ak sénégalais yi buñ interfere wala buñ dugal seen loxo si suñ élection bi loolu rek ngeen waxtaan ak mom waxtaanu leen leneen. of course Of course, of course, that's all. And we didn't even do the way you are saying it. We not defuñ ko ni nga ko waxee biñ ko bindee bem accept pour gis ñu mm-hmm. biñ ñëwee dañ wax first of all sax ma wax la li ko aja yam sek wax daf ko ne ah kontaan nañ torop pour gis la parce que diggante Sénégal ak Gambia really dara xejuti lu war a nekkal lu négatif li le moo tax comme que yow sa bopp yaa ngi dégg rumeur waxuñ ko loolu sax ñu ne ko rumeur yaa ngi ci biir dëkk bi ne dañ bugg a ferry some people time boobu du saanoo ngi doon wax dafa bugg a yóbbu ay boss ñu jël Gambien jigéen yi nga xam ne ñu ngi sëy Sénégal ak ñu sey Casamance ñëpp ñu indi leen pour ñu ñëw registre dégg nga so ñu ne ko rumors yooyu ngee dem and it will be good as a sign of Gambia sovereignty pour que Sénégalais yi buñ involve in our registration very simple yaa ngi dégg mu ne man sax dégg naa loolu et dafa nekk coincidence it's coincidence because suñ ñëwu doon sax di ambassador ci lim ñu wax ci lim ñu wax mu ngi doon prepare pour def the tour of the whole country bim demone def tour ci country bi for a republic like the president with all his information services the first meeting bi ambassador bi def di wax sénégalais yi ne buñ interview let them go away from gambian thing mu def about six days interior ñenn ñangi tassé ak mom man sa konko ñenn ñangi tassé mom moom lifin dem na ba boori min bassé ak yépp all that, the president did not hear that the ambassador is going around telling Senegalese not to get involved in Gambian elections. Bembe koku jeexal mission bi ba ñëw yow nga dégg loolu rek nga ne la Sidaat Diop moo lii delegation bi why do you even get angry su fekkee ne Sénégal wax na nitam yi buñ ci boole pour Gambie am sovereignty mu am sovereign elections. I think you should be happy you should have even been the first person course, they That's a very good initiative. But why will he be angry <laughs> that the Senegalese stopped their people? We are not the ones who stopped it. And you cannot tell me that you want the Senegalese to get involved in Gambian elections. You will not tell me that you want that. So then a lot of sax ñun daf ñu ci encourage for the prestige of the country and that is all. Hmm? jërëjëf euh, ci delegation bi nga xam ne de def ngeen ko pour dem euh, euh, gisi ambassade bi président bi génn wax li moo wax waxi président bi lan la def ci yow lim génn bi nga déggee loolu yow lan nga yëg dara dara la ma defut because man dara la ma defut te baaxut pour moom because dama discover ne they are being very unfair with him if I can say that They are being very well unfair with him. They are not informing him correctly. They are not giving him statements that are correct. And man, Sumanekon, Sumanekon, even yaay jame su traveloon ak man when we go to Algeria and so on Amona i ay waxin yoo xam ne dama ko tere te mu ma koo acceptal gis nga façon président yangi ni di dem ci élection Gadiga I false information. That way opposition with talks. Even that is not reconciliating. That is leading to division. Then mm-hmm. got to suma kone, dama attack ambassador bi. ba pare ma ne leen bugguñu soxlawuñ Sénégal man di foog nga man dinaa wax Sénégal <laughs> Sénégal soxlawuñ Sénégal when I have a house in Dakar when I have my residence, I taught there for eight years at the university. And even let me give a, bit, <laughs> a very strange detail. Do you know that? Not this ambassador. This ambassador who is here was the ambassador of Senegal in Paris. Paris lañ ko jëlee for the simple reason he is a specialist in working in countries that have a crisis. And I will even go further to tell you this ambassador is an ambassador who is in no political party in Senegal. That is, I know that. And he knows it. And I think even Barrow knows that. He is a career diplomat. He was in Mali during the Troubles momo moo ambassador ambassadeur bi PAK boo watara ci doole watara euh, was euh, you know Yoni nañ ko on special missions to Central Africa and also to to to to to Chad Legi lima la wax ne is a very strange thing Bala moo ñëw moom Jan, Diagne Singate ak ambassadeur Ndiaye all of them were my students in the University of Dhaka. All of them studied with me. I was not only their professor, but they all, and they said it when they came to the Gambia. Ambassador Njai is the last who left. I had him for four years. Three of the last ambassadors that were here were my students at the University of Dhaka. So I have a very... MashaAllah. Ah, kon dégg ngeen docteur Sidat Diop Modou si Sidat Diop ah, kàddu yi nga xam ne ah, mu ko wax foofu di ñu jox lan la fiil wala boog lan mooy tontoom si kàddu gi nga xam ne président Adama Barrow teg na ko ci kawam technicien si mun ngeen ñoo indi la docteur Diop rek docteur Diop su ko defee ñu raapo ak moom gannaaw bi nga xamee ne tontu na laajte bi nga xam ne moom lañ ko doon laaj. ci li président Adama Barrow wax ci moom léegi lan mooy sa tontu docteur Diop si wax ne. Um, li ñoo wax ni li nga wax ci président Adama Barrow ñu ngi ko misinform and everything that is happening mais UDP ñoo ñu jox président Adama Barrow suma final questions to you UDP ñoo jox Gambia président Adama Barrow soo gisee mu àgga fi mu àgga fi yow sa boppa wax nga ne dafa waroon a resign lay nga down a very good plan legaseem lim doon war a am su fekkee ne resign na um, um, ba pare mu dellu si waat ci ndendi politique bi waaye ñu ne UDP ñoo ñu jox président ci am na jamono baro woo sawa baro lañ doon dégga am na jamono moom dina ne Lawyer Darboe mooy papaam moom it Lawyer Darboe ooyee ko ne mooy di Moses that saved us from Pharaoh ba pare yi tamit finally li gën a yokk xamba safara bi mooy ne Lawyer Darboe moo taxaw ne suñ déggee képp kum dégg ku ne na lo am kii ah, président Adama Barrow ku ko bugg a forcer pour mu génn ci nguur gi dina la gis in court um, so soo gisee ñu egsi fii tey wala Barrow am fit UDP moo def Barrow what Barrow is lan mooy sa tontu si loolu. you you see uh, Mr. Diouf. Mm-hmm. Uh, I come from dama jógee ci school of thinking boo xam ne. Mm-hmm. Uh, li ma gën a pousse pour ma def moom mooy positive thinking. Mm-hmm. wax naa la ne man president bi was badly informed. So I wasn't even concerned about it, and I forgive him for that. The fact that he came, he was elected, and there's all that acrimony, and Yep is now buried in the sands of time. We are now facing the present. And foog present bile. so su intention moom to dig into the dirt pour jéem a xam kan moo def lii kan moo def lale kan moo def lu positif kan moo def lu négatif dinañ yàgga juuf balaa ñoo génn ci lii ñu ngi ci situation boo xam ne dafa tar in such a way that fii ba élection si maa ngi ñaan ñëpp muy président Barros kam mu yeneen political parties yi ñu bàyyi di dénigrantante di saagante wanta di wax ni parti bi mo dee saga kali mo dee saga ak ñun dañ tuuti torop as a state and foog ñu realize the importance man bala na ñëpp mais fi du ma mun amati benen réew bu jaxani maa ngi amé kër Sénégal but I feel more more at home su ma nekkee Gambia so man man lima bëgg wax rek mom moy né nañ bayyi at this point di gas di suul di jéem a sànniyante responsibility léegi def nañ registration yi xam nañ how many members are going to vote let us all be very democratic citizens ñu xaar ba léegi ñu àgg ci elections yi ñu def elections ku win ñëpp respect la mais xam nga ne ci politics ku nekk dafa ne suma parti moom mooy win nañu yàlla dimbale ñu mun dem ci suñ élection si ñu am suñ new government but ñu am ko in harmony and without any spirit of vengeance ñu xam ne we have to justify lana tax dëkk bu tuuti bu mel ni Gambia exist foog ñu dem solidly into development into having ideas recently bala yaaya Jammeh di dem président of Mali daf fi ñëwoon mu ne ñu ñun xam nañ ne yéen yéen a ngi amee a very navigable river liñ bëggoon soo leen extendoon seen port bi dinañ bugga pour coming from Europe river Gambia is the first navigable river that you get into marchandise Mali yi ñuy ko wàccee Gambia and then ñu a am a railway link from Bara. It has to be Bara because Monica on the other side. But the Gambian port could be developed in such a way nga you will have port on the Bara side and on the Banjul side. And then to have a railway link from Bara to Kungel, from Kungel to Bamako, that will boost the, the, the, the trade in the Gambia it will us to have a certain justification. And why should we think small? Why don't we believe that the train coming from Banjul to Bamako could be extended to go to Mali, to go to Niamey, could go to Ouagadougou, and then people will gradually build it. Many Americans build a whole railway crisscrossing the Americas. We are a big continent with a lot of resources. I think by October we will start pumping, we will start Drilling oil. When we drill oil, if it starts flowing, we should have refineries. We should improve our agriculture. Go into mechanized agriculture. A big opportunity that we lost was with Costa Rica. When I visited the president, with the president of Costa Rica, President Yaya the New York ci groundnut farm yoo xam ne one mile yenn two miles mechanized agriculture and we had 32 scholarships to train Gambians in mechani mechanically producing uh, groundnuts, to which is linked the industries of oil and various other things. ngir yàlla juuf man li maa ñaan nit ñi koo xam am nga dara lu la naxari nga xam ne na la doo mën a join la sufeke fekkee yaa yanko saga koo saaga nañ jéem a ma wax sax naxante nañ ne dëkk bu tuuti at the amount of people leaving schools at the little openings that we have for jobs nañ build contribute ba nga xam economy bi mun absorb people in different sectors of human endeavor loolu rek la mais suñ buggee duel on kii moo wax lii kale moo wax lii dama mere kii kii na def lii nga jéem a destroy gis nga li tax man bugguma aliéner président Baro. sooner or later we will meet in life and what is there what is there that we can gain if he's angry with me and I am angry with him kon dégga ngeen fi mu uh, teg loolu what is there that um, he can gain lan la ñoo njëriñante lan la maa njëriñ su ma meree wala suma ma ko meree suñ nekkee di yàqante di ñante dégg ngeen loolu kàddu gi kàddu gi am solo la uh, docteur Diop su UDP toogee lan la nekk sa place suufu nga ne yaa ngi ci foreign service uh, ci foreign committee bi nga nekk su UDP toogee lan mooy nekk place si docteur Diop loolu loolu dina dépend on lan la government bi wax ma dimbale leen mais man fi ma nekk nii suma dream te loolu lay gën a reinforce ci government bi foog ñu am suñ train buy jógee Gambia dem Bamako dem Niamey dem Ouagadougou and to be frank with you bugga naa yàlla jox ma life bi ma dunda ba train boo xam ne with all the internal trade buy xew si su fekkee train yooyu nekk nañ fi ñu am Banjul to Mombasa Banjul to Mombasa right across the continent ñeneen ñi ñëpp dinañ ci a link loolu laa bugga mu nekk my last gift or contribution to the development what do you think needs to be done for that to be achieved lan moo war a xew pour loolu achieve no we we have first of all Bugawi, uh, bu uh, uh, Banjul Kungel Bamako that we can do we just have to have an agreement and I think if Yaya was very keen ni kon boobu the rest we will have to negotiate it with African states African states si seen bopp communication in the continent is very poor and you you know yourself what the railway has done for America, has done for Europe, has done <laughs> for England. So nañ commencé te ñu gom ci gis nga everything kera bi nga jógee nga decide ne di nga am sa télévision di nga train Gambians pour mun mun métier bi mun a nekk fii yow yaa ngi fale yaa ngi leen a train They contribute to employment and everything. Ah, the idea germinated in your mind and you turned it into reality. Every idea can be turned into reality. I believe in it, and I believe that we will see a railway, perhaps not in my lifetime, but one day people will remember that we sowed the seed in the Gambia very modestly, without pretension, of having the Trans-Africa Railway from Banjul to Mombasa for however long it takes. But the idea has been shown, and many other people who are in that field, who are experts in communication and in railway construction, and all those who deal with trade ñoo xam ne dinañ ko calculer see the profitability of this thing to transport our oil and all our goods from one part of the continent to the other. It will also encourage trade in the sub-region and beyond. And you, I believe it will happen, and I thank you very much. jërëjëf docteur Diop kontaan nañ trop ci li ñu grant interview bi um, am na quite a bit of things yoo xam ne ñu ngi xew waaye waxtu bi jàmb nañu um, yàgg nga toog fi nga toog noonu obviously um, ci beginning bi ñu doon am some technical issues waaye kontaan nañ bu baax unless nga am mujjanteeli kàddu goo bugg wax Gambian si rek ba ma tëj dafa am leneen loo bugg a E, pour gérer mala bu baax rek ne tam te melut ne dama la e, flatter wala wax anything yang nge def a very good job and I think the type of questions you ask loolu tam dina tax suñ compatriotes yi xam li xew te ñun tam dañ wara a open waxante li fi nek mais man lima ma ñaan rek boy frankly ñu ngi blame ante pour affaire yi saaga yep, yooyu ñu bayiko man lima li ñaan mom moy jógee tay dem ba suñ election si be after election si Gambian si yeb japante as they are linked ñun we are linked in one way or the other yang nge dégg and ken du mëna nek sa xarit su fekkee yaa ko attack wala yang ko denigrate man xawma masak, sax lan mo indi li ci suñ civilisation bu njëkk bi nit ñi dangaa xelaat ñaari yoon balaa ngaa saaga bu njëkk sax saaga liñ ko daan usé rek moom mooy koo xam ne dafa bugga a nit mu ko provoque kooku jàppa jaamaam rek mu saaga ko ndey rek xam nga nag kooku foog mu sumeeku pour jéem a xeex mais kenn mais léegi gis nga Diouf ñepp ñoo amee télévision nit dafa toog ci appartement wala mu ngi toog ci këram wala ci gaadinam wala ci motoom mu ubbi ko mu switch on to whatsapp wala xaw ma beneen lifin mu wax lu ko neex mm-hmm. mu wax lu ko neex di mm-hmm. saagante di saagante yow ki nga saaga du la mun a tontu mm-hmm. euh, mais loo foog ne am nga ko ci loolu juuf saaga du wàccee kenn dénigrate nit du wàccee kenn te ki ko def mu ngi ko def boppam wala understandut ne loolu dafa diminish moom ci boppam prestige am ak dignité jërëjëf Diouf dañu ñaanal réew mi it's a small country war nañ koo gis mu amee university bu baax am training programmes in the private sector bu baax pour que ñun xale yëpp yi fee génna Like all these major projects in agriculture, the industrialization of our oil and gas and everything, mu create jobs Your hamne they could absorb all the people coming out of college and coming from training Purka Gambia ne ah soo jàngee di nga dinga muna anan opening the suñ university vitam sumune su mu nee bu suñ idea of African unity bah. everyone muy Nigerian, Gambian, Senegal, ñun ñëpp mu nañoo walk in the West African ECOWAS region and the continent belongs to everybody nañ ko gisé nonu more than 50 years ñu ngi wax affaire African unity Juuf tay seetal fuñ ci nek ñu jëm dal ñu jëma at least realize lolu gis nga three resolutions la founding fathers yi jëloon Kwame Nkrumah ak ñeneen ñi demoon na ñoom Senghor ak Addis Ababa ñetta yooyu biñ ko jëlee moo doon years ago suñ ci apply woon three resolutions rek ni kon tey Afrique am na currency am am na flag am te nekkoon na Security Council because unity bi dafa deger in such a way that they will have a common market for the raw materials of Africa te kenn du nekk di ñu exploit because ñu ñoo divide di ñu offer suñu kii offee sixty dollars kale offer ñu dollars nga gis man kile kile ñu xuloo foog ñu jéem a strengthen loolu te jànga ak close cooperation te ñàkk saaga moom moo ko tax naka la ñoo mun a amee Sénégambia wala am West African region ñu solidarité bu dëgër su fekkee ci in ci boppam ñu ngi saagante di wish one another in, nañ jéem ñun Sénégal ak Gambia to give the example to Africa of what two countries with a common vision and destiny could do towards unity. And that example of Senegambia will be for ECOWAS and for the entire continent. Thank you very much. ngeen kàddu yi nga xam ne gaaral na ko fii ci yëfi politique ci expérience bi mu am as a diplomat as a seasoned diplomat ak koo xam ne liggéeyal na dëkkam ak xam-xam bi nga xam ne màcc na dafa am solo pour ñuy am waxtaan yi lim fi wax yëpp lu am solo la Sénégambia mun naa nekk exemple ci biir africa um, West Africa kon den mu dem ba Africa and by extension su defee suñ fa àggee rek dinañ ñu respect li waaye li yoon nag daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi waxtu bu nekk ma wax ko askan bi saagante xasante ŋàññante yóbbuwut ñu fenn baax ak yaru lum la xañut du la ko may réew ak ñàkk kersa lum la xañut du la ko may baax ak yaru lum la mayut du la ko xañ réew ak ñàkk kersa lum la xañut du la ko may kon Gambia suñ Gambia la ñun ñëpp a bokka ñun ñëpp am ñoo jógee ci benn gaño is important ku taal dëkk bi sa boppa nga ko def te kon nañ leen jàppante ñu bàyyi xeex bi bàyyi xuloo bi bàyyi xaste bi saagante bi ak ngàññante bi sa carte la nga am su bés bi jotee nga dem sànni ko politique bi dafa jeex by December 5th ñu raxasu ñu ñëpp képp kuñ sànnil karta we have no choice than to rally behind the person for the next five years pour jàppale ko mu yóbbu réew mi kanam suñ ko fi taalee nag wala ñu def dara balaa boobu ñun ñoo cee loru kon ñoo ko bàyyi soo woon fii ci Gambian Talents TV di leen leen gërëm di santa Pa Ousmane leen ci gannaaw microphone bi rek di bëggee suma technical bi ci ground bi Fat Samba Moussa Diatta ak ñi nga xam ne ànd ngeen ak ñoom foofu yëpp kàddu gi di si rafet ci yàlla si ñun la bu leen fàtte pour toppañu moo ñoo ko bàyyi shows ak programmes yoo xam ne ñu ngi ci Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa jërë ngeen jëf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 anda ɓale anda dane anda paykum anda mawɗo wari africains ɓe boyka hoore leydi sabu noon ala lekki kono kibaruji welɗi ɗin woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fof ñetti o vaccin jolko kala yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono vaccine vaccine lots of people them around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people that where you like. On a member say, we all not safe till we all learn safe.